ci yoo xam ne euh, moom dana ko faram-fàcc ñuy profité bu baax nag di ñaanal suñu xalif général di Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mi nga xam ne moom mooy xalif général des Mourides di ñaan suñu borom mu dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral Euh, ba mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko seexul xadim lépp suñu borom kattanal ko mu liggéey ba def ko ba def ci nu kawe njortam euh, di ko ñaanal itam suñu xalif sénéro yëpp moo xam xalifa euh, suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick Sy di Serigne Babacar Sy ibnu Alaaji Mansour moo xam it xalifa bu maam Abdoulahi ñas wala Baye ñas Euh, xalifa bu lew Léona ñaseen xalifa bu Canaba euh, xalifa bu Yoff Seydina Limaamu Laay ba ci xalifa bu Cheikh bu Kunta Ndiassane ak euh, mboolem xalif généraux yi ci Sénégal yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu bu baax nag suñu mbokki jàngu bi madame gay maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu ànd bi ngay ànd ak rajo Futurs Médias waxtu bu nekk saa su nekk ak sama mbokku Karitien Bale di Odette nekk fële ci Wonderfoot eh, ci kon Mouhamadou Lamine Sow bu fekkee nopp nga noppi nañu auditeurs yi ñoom itam noppi nañu ñu déglu jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci sëriñ daaru Assane buñ ca noppee nag dugg ci waxtaan bi mu di waxtaane kan moo di sëriñ daaru Assane Ndiaye. RFM gëstu bés bi. Sayxu Assane Ndiaye nag donte ku ñuy xam la sëriñ daaru Assane Ndiaye moom du ku ñuy nattable fii ci réewum Sénégal ak ci Afrique. moom sëriñ Darou Assane Ndiaye nag bokkoon ci mag yi ku tedd ki di sëriñ Touba Xaadim Rasuul histoire nag dig taarixal du ñàkk ñu defal ko mag moo xam ne dañ ko bëgg a xamle moom sëriñ Darou Assane Ndiaye mi ngi gane jamono ci dëkk bu ñuy wax Njare Sayer ci atum 1858 way juróom wu góor mi ngi tudd sëriñ Mouhamadou Ndiaye ñu di ko wax sëriñ Mamoor Faati Saar Ndiaye way juróom jigéen nag mu tudd Soxna Aminata Kan am njàngam mi ngi jàngi alxuraan ci dëkk boobu nga xam ne ci la gane jamono mu di njaree sayar ku ñuy wax jaay aram sàmba moo ko jàngal ba mu sori lool mu jóge fa dem ci dëkk bu ñuy wax ngay saa yoro la gën a bëri foofii la ko jànge fa la mokkale alxuraan bind fa ay kaamil yu bëri lool kon ci ñaari dëkk yooyu fa la jànge moom sëriñ Daaru Asan Njaay alxuraanul karim tàmbali fa itam njàngum xam-xamam gannaaw bi nag dem na ca daaree sëriñ Mor Anta Sali Mbàkke ngir yokk fa njàngum xam-xamam jàng na fa sax nag xeeti xam-xam yu takkoo takku lu ci mel ne balaaxa ak haroot ak bayaan ak lu ci mel ne xiraati sapan muy xeeti njàngene alxuraan yi fii la ko jànge ba mu jógee ju lool nag ci fànni xam-xam yi digganteem ak ku tedd ki di Serigne Touba bi nga xamee ne Serigne Mor Anta Sali wàcc na liggéey ci atum sasin di atum 1300 mu nekk fa ba ca assasine di atum 1301 hijriya bokk na ci nag ñam fa ndekkandooloon ku ci mel ne Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ Serigne Massamba Diop Sam Serigne Dame Abdourahmane Lo bi nga xamee ne ku tedd ki di Serigne Touba Xaadim Rasul wax na waxam ju sew jooju mu di saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi xawlihi rabbi ashaabaka bil himma wala turabbihim bid dar si faxat moom Serigne Daaru Asan Njaay ca saasa rek la daal di jaayante ak ku tedd ki di Serigne Touba jébbalu ci moom bi muy jébbalu it yemu ca waaye dafa daal di bind ay bayit boole ko ca lii la wax moom Serigne Ndiaye lillaahi xat surtuhu laa xayruhu arabi islaysa siinatuhu hindi bi hawaajaati wa himmati shukru rabbin la sharika lahu jalla lahu araduuna ka samaawaati li annahu jalla yuhtiinil munaa karaman wa yasturul xayba fiya kulla saahaati ataytukal yawma xan at lu banna ridaa rabbil baraaya lasi yuhlil maxaamaati xiraaya yaa chixati ridwaanuhu abadan bi xayri suqtin wa tawbiixin wa aafaati lii lenn la ci xasidaam googu mu tudde adaa ali xamarun moom sëriñ daaru asan njaay nag noonu la àndee ku tedd ki di sëriñ tubaa xaadim rasuul di ko liggéeyal guddi ak bëccëg mu doon doonoon koo xam ne nag boo ko nattee ci àndaari sariixa mu mat ko sëkk bi nga xamee ne ku tedd ki di sëriñ ko ba wàcce ko mu daal di dem kër baayam ngërëm loolu it la cay firnde mooy li nga xam ne ku tedd ka di moo ko bindal boppam sëriñ Tubaa ci boppam moo bind wax ne jazaaka rabbuka fi daareeni yaa xasanu xayran bi jaahi lasi man najlihil xasanu a taxuusa lasi tarju wa ta'muluhu mimman lahu xat badal kidmaanu والهلن فاعلم بأني راد عنك مطلب أن جاءك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في التقى والرشد مجتهدا كي لا يلاقيك الهسيان والفتن moom sëriñ Daaru Asan Njaay nag ba ma demee kër baayam sëriñ bi digal ko mu sanc dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam ñu gën koo xam ci Daaru Njaay gii ñu koy dàkkantale ba tax ñu naan ko sëriñ Daaru Asan Njaay naka noonu itam sanc na dëkk bu ñuy wax Daaru Xadim ñu gën koo xam ci Daaru Biram Boodil naka noonu itam sëriñ ci boppam moo ko wax ne ko tudde ko Touba ndax ci la bokk dëkk yooyu yépp nag li taxoon sëriñ Daaru Assane Ndiaye ko du dara lu dul jëfe li nga xam ne sëriñ Touba def na ko ci moom ak di fa yar ay taalibeem te loolu mooy jikko yi nga xam ne Serigne Touba def na ko ci moom mu war koo def ci ay doomu aadama liy firndeel loolu dafa am ko ñuy wax sëriñ Omar Diop am na leetar boo xam ne Serigne bi moo ko bindoon Serigne Omar Diop ba mu ko santee mu ko doon sant ba noppi daf ko wax ne ko balligh salaami ilaa jaarika lesi fihluhu kasmihi daan na wax ay taalibe moom Serigne Darou Assane Ndiaye dee leen saxal julli juróom ak lu ngeen man ci ay nawaafil ndax man kat li ma ànd ak ku tedd di Serigne mësuma digal dara loo xam ne njariñam la njëriñal àddina ak alaaxira képp moo ci nekk te mooy jaamu yàlla sax ci ak njub te lii ma wax nag Cheikh Mamadul Basir ibnu Xaadim Rasul indi na ko ci téere bii di Minanu Baaxil Xaadim sëriñ bi mas na koo wax moom sëriñ Daaru Asan Njaay ne ko da nga dem ba li njanaaw yi di sab yépp danga ko xam mu nekkoon koo xam ne da daan wor bëccëg yi dinaa fi la guddi yi fu mu toll itam ma nga dëkk ci di jàng alxuraan moom sëriñ Darou Assane Ndiaye sëriñ Basiiru Mbàkke dafa wax ne xultu wa kaanal xasanu Ndiaye mim baqiyati saalihin zawaaman xawaaman laa yaftaru anil quraani daa ima ihtisaali kon daal ci gàttal sëriñ Darou Assane nii la nekk woon ba ko ko tedd ki di sëriñ Tubaa Xaadim wàccee itam noonu la doon doxee di ko jëfe itam mi ngi wàccub liggéey ci atum 1924 moom moo jiitoo ko tedd ki di sëriñ Tubaa Xaadim Rasul ay at yu néew ca Touba Ndiaye la wàcceb liggéey ñu denc ko ci dëkk bu sell bi di Touba Mbakke ci armeel yu njëkk yi jàkkaarloog jumaay Touba fa ñuy tudde guy texe sëriñ Daaru Assane Ndiaye daal di jàmbaar joo xam ne kenn mënta takk ay jëfam yu baax bu ñu ko doon lim di ñaan rekk nag suñu borom mu fayal ñu ko te taas ñu ci barkeem te yàggal fi bu baax nag ab xalifaam te sàmm ak njabootam aar leen ci barkeeb sëriñ Touba Xaadim Rasuul amiin jërëjëf Mouhamadou Lamine Sow jërëjëf it mbokk yi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo Futur média loolu doon jàngat bu gàtt rek boo xam ne eh, mi ngi tolloon ci ñeenti minutes ñu doon ko ubbee rek eh, jataay bi eh, ñu fas yéene dalal Serigne Mouhamadou Ndiaye Hassan mi nga xam ne mi ngi bokk ci njabootuk Serigne Darou Assane Ndiaye rawatina nag kuréel bu mag boobu nga xam ne moom moo leen boole mu tudd jamaahatu ahibaayi Cheikh Hassan nga xam ne kuréel la bopp ay soppey Serigne daaru Assane Ndiaye ñoom ñoo ci ñoom ñoo ci booloo moo xam njaboot gi la lenn ci taalibe yi ba ci sax li nga xam ne ay soppe lañu rek eh, dégg sëriñ Daaru Assane Ndiaye bëgg ko te yàlla tax di xencu ak dundam di xencu ay jaar-jaaram eh, ñoom ñoo tënku ci kuréel boobu nga xam ne eh, ñoom ñooy soppey sëriñ Daaru Assane Ndiaye te yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ne kenn ku nekk nga sopp ngay àndal ëllëg yomal xiyaam loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ñu ko moo ñu ko jàngaloon almaru maman ahaba commission culturelle bi nga xam ne nag mooy kuréel gi ñu taxawal Euh, ñuy saytu lépp lu jëm ci wàllu ko euh, jaar-jaaru sëriñ bi ak dundin wi ñu di ko tuddee culture ci tubaab euh, Euh, moom moom moom bokk na ci bokk na ci membre yi nga xam ne euh, moom sëriñ Mouhamadou njaay Assane mii moom lañu ñu fas yéene euh, waxtaanal daañu fas yéene waxtaanee nag sëriñ Darou Assane Ndiaye moomu ci boppam daañu ko tënk itam ci ñetti pàcc yoo xam ne daañu ko fas yéene waxtaanee bu njëkk bi moom ci boppam mooy kan ndax xam ngeen ne taarix du mën a ñàkk moom sëriñ Darou Assane Ndiaye kañ la gane jamono fan la gane jamono way jur ndax xam ngeen mbirum askan alxuraan daf daf ci daf ci wax lu bëri bëri euh, daf ci daf ci insister euh, di wax ne sax euh, ba muy nettali xisab sayyidatuna Maryama dafa wax ne bañ koy yedd sax dañ ne ko say way jure day mësuñu leen a xam ci ay caaxaan maakaana abo kimra asawin wa maakaana tumuki baxiyan nga xam ne kon baaxook askan dana dimbali nit bu baax a baax wala sina amanu wa tabaxathum duriyatuhum bi imanin alxaqna bihim duriyatihim fu bëri ci alxuraan ba muy nettali sax Seydina Xudar Euh, miir ba mu yëkkatiloon ñaari xale yi jirim ja ba ñu jot ci alal jëng leen fa dencaloon euh, wa amal jidaaru fa kaana li xulaa may ni may ni fil madina wa kaana taxtahu kansun lahuma wa kaana abuhuma saalihan la wax euh, kon dafay mel ne ko euh, ay jur lu am solo la ci taxawaayu euh, nituk nit rawatina nituk diine rawatina ku sóobu ci yoonu yàlla kon daañu fa yéene waxtaane pàcc bu njëkk boobu ñaareelu pàcc bi digganteem ak ko tedd ki di Serigne Touba gannaaw ba mu jébbaloo fan la jébbaloo kañ la jébbalu nu mu jébbaloo ba mu jébbaloo ba noppi itam ca lan la fare woon sëriñ bi ca lan la doon liggéey nan la ànde woon ak bi ak kañ la ko Serigne bi seexal ba ni mu wàcceb liggéey ci atum 1924 euh, jiitoo sëriñ bi la ca xew yëpp daañu ko fas yéene waxtaanee leneen la ca topp nag muy bis bi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal ci kanam tuuti euh, daañu ci euh, fas yéene ñëw kañ la ak fan la ak naka lañ koy defee ak woote baagee ci aju ci kanam tuuti daañu ko fas yéene tëjee jataay bi daañu ubbi téléphone bi itam ci 33 849 16 40 ci kanam tuuti daañu fas yéene ànd ak suñu mbokk auditeurs yi. Sëriñ Mouhamadou Ndiaye yaa ngi dal ci sa kër di rajo Futurs Médias Eh, ñu lay dalal jàmm di la wax asalaamaaleykum eh, naouzu billahi fi sirrin wa fi alanin min charri iblisa xaytu nqada aw rakada naqulu bada al ibtidaa bil basmala walhamdi wasalaati thumma alxaqala rabbi aini al abda litimi al qasda anaka yaa muin bika nastain wala xawla wala quwata illa bika yaa rabbal alamin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaye sëriñ Mamour Mbacke waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mm-hmm. noo ngi am mbégte ci teew ci jataay bi ci RFM euh, rajo Futur Media euh, di sant yàlla bu baax ci jataay bi nga xam ne mm-hmm. ni nga ko ubbee rek doyoon na sëkk jataay bi mm-hmm. ci jàngat bu am solo boobu nga xam ne def nga ko ci kenn ci magi sëriñ Tuubaa yi mm-hmm. mag ñi toppoon sëriñ bi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu taala anhu bi ko suñ borom indee jamono muy kuy xettali jamono dafa waxal boppam ne suñu borom tànnal na ma ay àndandoo yoo xam ne ci ñoom lay feeñale lislaam ji tax ma ñëw di ko yeesal ndeysaan kafaani xafidun maaniun jumlatal ida wali qaada ahbaabam bihim udhiru nuska lay ndeysaan kooka kenn ca ñooña ñu war a ko waxtaane muy sëriñ Daaru Xasan Njaay ni nga ko waxee léegi ci jàngat bu am solo bi nga xam ne moom nga ubbee nga xam ne wax dëgg ku doon ku ñi doon teelu jàpp naa ne liñ bëggoon a xam lépp tënk nga ko ci ñeenti minutes yooyu nga wax alhamdulilah kon noo ngi sant baax di la jaajëfal di jaajëfal mboolem xam ne ñoo jàpp ci émission bi ak waa kër gi yëpp ñaan suñu borom defal leen tawféex di ziyaare baax Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ko jaare de sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mhm. mooy xalifa sëñ Daaru Xasan bu mhm. dëgmal bisu sëñ Daaru Xasan bi ni nga ko waxee insha allahu taala mhm. danañ ci allah eh, jërëjëf eh, Cheikh Mouhamadou Ndiaye Xasan ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci nuyoo bu matale bu jotale bi eh, di la ndokkeel bu baax it ci jataay bi di la masawu coono bu baax Euh, di ñaanal bu baax it euh, kilifa gi ni nga ko waxee léegi mu di sëriñ Abdou Khadir Ndiaye mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Darou Assane Ndiaye mm-hmm. euh, di ñaan suñu borom mu dolli ko fee yàggal bu baax te dolli ko wéral ba mm-hmm. mboolem li mu yéene ci liggéeyal ko sëriñ Touba am ko yéene itam ci liggéeyal ko sëriñ Darou Assane mu liggéey ba def ci ne kaw njortam mm-hmm. waaye lépp nag yàlla ko suñu borom dimbale bu baax mu mën koo ànd ak njaboot gi sëriñ Mouhamadou laaj bu njëkk bi bu ñuy waxtaanee kilifa du ñàkk li ñuy tuddee taarix Euh, ndax alxuraan sax dafay ñëw lenn ci ay taarix mm-hmm. euh, ndax daf doon fàttali yonente bi alayhi salaatu wasalaam naan ko jàngal xissa yi yonente yi la jiitu woon mm-hmm. Mm-hmm. Euh, dem sax ba naan ko am na ci ñoo xam ne wax naa la seen mbir waaye am na ci ñoo xam ne sax waxuma la ci ñoom dara wa rusulan xad xasasna alayka min xablu wa rusulan lam naqsusum alayka Eh, ne ko wa tabax milata abaay ibrahima wa ishaq wa yaqub mhm. maa kaana lana an nushrika billahi min shay mhm. loolu lépp liñ ci jublu rek mooy da koy fàttali la jàlloon mu mel ne kon ndekete lu jàll mhm. fàttali dafa am solo eh, ndax alxuraan yaakaar naa wax na ci lu bëri dee leen fàttaliku ndax fàttaliku da ngeen ciy jariñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam it wax na ko ci hadis ñuy fàttalikoo nit ñu baax ñi yi fi jaaroon suñu borom dana leen gàttandoo ak yërmande mu doon lu am solo ñu war a fàttaliku nag eh, kenn ci njabootu lislaam mën nañ koo tuddee noonu c'est universel euh, koo xam ne l'islam umma islami bi yépp moo ko taxoon a jóg koo xam ne fexe ba jullit ñi jariñu moo ko taxoon a jóg mm-hmm, mm-hmm. mu gis ne rek yoon wa ca gën a gaaw gannaaw l'islam ak jàng ak jàngale sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul mm-hmm. mu di sëriñ Daaru Asan bu ñu la laajoon ci tënk rek nga taarixal ñu mooy kan ci wàlluk askan ci wàlluk judd ci wàlluk jaar-jaar ci wàlluk jàng maanaam enseignement moom sëriñ Daaru Asan Njaay kan la ci kay jërëjëf sëñ Mamor euh, ni nga ko waxee rek Euh, jëmm ji ni bëgg a waxtaane euh, nit la koo xam ne ni nga ko waxee universel la mhm. mooy sun daa bokk ci ñi suñu borom yebar jamono ngir ñu li mhm. waa jamono dëgg euh, yàlla dogale suñu borom wanale ko Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mhm. moom la suñu borom dink jamono ndax sëriñ bi dafa ñëw jamono ngir yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ko waxee ci barab yu baree bare ci biir xasida yi mm-hmm. Mm-hmm. bokk na ci rek bay lu si woow yàggas na ko wax li Mustafa nawaytumaay jaddidu sunnatuhul garra wa inni ahmadu eh, kon loolu boobu nag wa sunnatahu insha arabi ubayinu ubayinu kon nga noonu eh, nga xam ne ndeysaan eh, mission boobu ko taxoon a ñëw mm-hmm. Euh, faw suñ borom ni ma wax ci tàmbali bi. Mm-hmm. boole kook ñoo xam ne ay aawaan lañ. Mm-hmm. ñu koy jàppale. Mm-hmm. ndax boo xoolee yonent yi sax dañu doon tudd léegi. seen histoire ñoom itam bu dee Seydina Isa ay xawaari yoon lañ ko boole ñu di ko eh, eh, jàppale mm-hmm. dégg nga ñee kenn ko ne yonent bi ak ña ko suñ borom booleel mm-hmm. ngir woote ba message ba mën a jàll mm-hmm. Sëriñ Tuubaa bi mu ñëwee di borom jamono war a jàllale message bi ko suñ borom ya yónni bu boole ko ay ñoo xam ne dañ koy jàppale kenn ci ñooñu kon moom la ñuy waxtaan doom yéen du sax dafa waxoon ne al uruqu dassaas mhm. euh, si day royaat la nit ki mun wolof da ko firi ci ne nit ki mu la am nàmp lay tàqamti ko mhm. kon loolu lu am solo la mhm. muy du tayibu yaxruju nabaatu bi isni rabbi ma nga noonu la ca topp wala si xam ma nga noonu macha allah nga xam ne kon euh, sëñ Daaru Xasan radiallahu taala anhu dafa dogal mu feeñ ci jamono bi dee ci atu gàddaay gi 1275. 1275. ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Hmm. loolu mooy dëppoo ak 1858 ci juddu yonent yàlla Isa alayhi salaam. Hmm. ci la gën a jamono. 1858 58. Hmm. ci Njara nañ ko léegi ci ci jàngat bi. Njara Sayer fu mu ne. Njara Sayer mi ngi ci réseau de Louga. réseau de Louga foofu la nekk lu am solo la ci njàmbur. macha la foofu la gën a jamono. suñu njàmbur la. Ah, ndax. te waa Njàmbur doon ñu am taxawaay ci sëriñ bi loola sax ca kanam dana am lu ma ci cabaxal ba sëriñ bi nekkee ndar yaakaar naa mm. fekkoon nañ ko fa am luñ doon sàkku am lu leen sëriñ bi wax am lu mu mm. leen dénk mm-hmm. loolu am solo la waa Njàmbur dañoo yàgg jàpp seen Njàmbur <laughs> macha allah macha allah kon foofu la gën a jamono <laughs> njara sayar mm-hmm. njara sayar sëriñ sayar maram cooy mm-hmm. moo ko sañ ci muy maami sëñ Darou Assane kon ci dëkkum maamam la gën a jamono est-ce que yi sëñ Darou yàlla tànnal ko sëriñ mu xam Mouhamadou Ndiaye. Mm-hmm. ñu gën ko miin ci sëñ Mamor Fayti saar Ndiaye. Mm-hmm. sëñ Mamor moomu moo jur sëñ Darou Xasan. Mm-hmm. sëñ Mamor ku ñuy wax euh, Ndiaye Fatma Diarra ko jur. Euh, Ndiaye Fatma Diarra suñuy wax Sayar Maram muy Sayar Maram sant sëñ ci Ndiara Sayar. mooy way juróom. Euh, Sayar kon kon maamam ji jur way juram. moo sañ ci dëkk ba moo sañ ci dëkk ba. ok macha allah Sayar Maram. ku ñuy wax mu Ndiaye Fatim jur ko. mu Ndiaye Fatim Bakara Waqe. Bakar Waqe Samba Sañu noonu ngay toppee silsila gi gudd na ba ci maam Demba Ndiar yaakaar naa réew mi bu ñu déggee tur yi xam nañ bu baax bu baax jara muy maam yi moo dem njëre njëre wallaay ndeysaan noonu lay toppee wàcce mm-hmm. mooy mooy seen maam bi gën a sori mm-hmm. maam Demba Ndiar yi du bokkoon ci nit yàlla yi mm-hmm. ñu doon borom yi jagle sax nag boo xam ne euh, di dox ci réew mi di wut mu mu dal am na boo xam ne wàqe ko dégg xam ko ci boor njëre wàqe la indi turu wàqe wi mhm. mooy ba mu demee ba soxla ndox daa wàqi loxo rek ndox ma génn loolu moo indi turu wàqe kon loolu loolu eh, cër la cër la kooku mooy maam mi gën a sori allahu akbar eh, macha allah booy juróom mu jigéen mhm. di soxna Aminata Kan mhm. bokk ci waa Kaneen waa Kaneen yaakaar naa de su leen laajee ci réew mi ci wàllu diine ak mm-hmm. ci wàllu wàllu jikko ju ràññi ko lañ ko ñoo ñoo ko ñoo ko meññ mm-hmm. nga wax aaya ba am solo bi suñu borom wax ne wal baladu tayyibu yaxruju nabaatu bi idni rabbi wallaay ndeysaan loolu ñaara dinaa ko di firee ci sama xam-xam gu gàtt ak sama dégg gu gàtt ndeysaan naan bu doon eh, bàq bi da nga bàyyi bàq tooy mm-hmm. ngay ji bu doon gerte nga tàmm eh, buuse ba mhm. ak kemb gu xar gaag mhm. yu yàqu yo ba mu des kemb gu di ji kënd gën a rafet nga ji ko ci bàq ba tooy gàncax gu naat ngay am waaye gàncax gu naat du cee ma meññ nu bari te barkeel ma ci bàyyi alhamdulilah loolu la way jur yu baax di jariñ doom dëgg la kon loolu la ko suñu borom eh, tànnal bu way jur yu baax yooyu mhm. yàlla dogal bi gën a jamono ci at moom moo xam ne 1858 ci njaraseer ba toll ci ati wàlla dal jàng mag ñi ñu fonkoon xam-xam lañu way juróom daal ci daara ci biir foofu la tàmbalee jàng alxuraan njara seer gi mu gën a jamono euh, sëñ Njaay mooy ki ko doon jàngal alxuraan sëñ Njaay Aram Samb bàyyi bàyyam bu ndaw la moom bàyyam ñoo bokk ah moom bàyyam ñoo bokk moo bokk moo mu jox ko ko mu di ko moo ko tàmbalee alxuraanam muy jàng ba euh, sori door faa jóge nag dem dëkk bi ñuy wax Ngay Saa Yoro Ngay Saa Yoro sëriñ bi ñuy wax sëriñ ma Yoro Gay moo ko fa doon jàngal alxuraan fa la mokkale alxuraan macha allah fa la ko wattoo. ba bind fa ay kaamil ci loxoom bu tedd ba. radiyallaahu taala anhu bi alxuraanam setee. alxuraan it eh, jamono booba xeeti njàngin ñi xew xam nga alxuraan am na juróom-ñaari njàng. njàngin xiraati saban saban. am na yeneen dafa wax ci xadis boo xam ne. Eh, unzila alquraanu ala sabati ahrufin borom xam yi di ko firee ci muy juróom-ñaari xiraa yooyu xiraa waaw <laughs> xiraa at yooyu yëpp mm-hmm. eh, bokk na ci rek bi ñuy wax xiraa bu si Abdourahman ibn mm-hmm. ak Abi Najud al Kuufi mm-hmm. ak yooyu xiraa yi nga xam ne Abu Naim xam mooy mooy xiraa Madina bi mooy war subeeg xeet yi mel noonu dëgg la juróom-ñaari xiraa at yooyu mu jàng ko ba peeg ko loolu xam-xamu alxuraan la. te te ci diggante boobu la ko jàngee. la ko jàngee waaw nga xam ne euh, loolu la nga cay déggee mooy gannaaw al maanaam juróom-ñaari xiraat yooyu. la nga cay mm-hmm. dégg mooy mu'jiza bi suñu borom def ci alxuraan. Mm-hmm. alxuraan ba mu wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nëgë ni. Mm-hmm. ay ay junni at ak lu tegal. dëgg la kenn mun cee wàññi virgule kenn mun cee dolli virgule. déedéet te. lahajaat yooyu muy xeeti làkk yu wuute yooyu ci arab yi xam nga dañu bari ay ay ay lahaja dëgg la juróom-ñaari xiraat yi loolu mooy mooy li ko sabab hmm. te fi mu toll nii kenn mun ca wàññi dara loolu mu'jiza la lay wane ci alquran te juróom-ñaari njàng ngeen yi taxul mu yokk ci dara déedéet waaw <laughs> taxul mu yokk ci dara loolu nag ki ko peeg hmm. day wane na kon daa da daa peeg mbaalam mbooleem alquran ci xeeti niñ ko war a jàng xiraat yooyu hmm. loolu lay tekki ak safoo goo xam ne safoo na ko xam-xam ngi maanaam euh, bëgg a xam alquran dëgg-dëgg ba ndax alquran des ko war a bu baax mooy message suñu borom bi mu nu jox. Mm-hmm. mooy yoon wi mu tëralal. Mm-hmm. ngir ñu jaar fa. dëgg la. wal hudaa wa siraatal mustaqimu lana mm-hmm. loolu suñ tuwaa waxoon dëgg la wallaay ndeysaan mooy yoon wu jub yu nga xam ne ku ca jaar rek àgg sa borom subhaanahu wa taala daan na wax ne sax alxuraan li muy yaatu yaatu benn baat rek la muy hudan hudan waaw loolu rek moo ko moo ko tax li ñu li ci lépp day la bëgg hudan la bëgg ko peegee nag sóobu nag ci lefum xam-xam sa ko xam-xam mu mel ne sax euh, li nga wax léegi ci xeetu njànginu alxuraan yi waaye li ci gën a mat a bàyyi xel mooy ci jamono jooja xam nga jamono ji ku ne gis na ni addina ubbeeku na mm-hmm. technologie ñëw na internet ñëw na yëf yi yomb na téere yomb na surtout mm-hmm. Mm-hmm. waaye jamono jooja nga xam ne ca la lépp jafee nga xam ne nga xam ne amub téere daan na jaral nit mu dox dëkk dëkk wala réew ak réew nga xam ne ci la peegoon juróom-ñaar <laughs> loolu doon lu am solo surtout jamono jooja xam ne da ngay gis ne mag ñi jamono booba Euh, ñu amoon pëstéef lañ. Mhm. ci sàkku xam-xam. dëgg la li nga wax léegi. Mhm. mag daana dégg da nga daan dégg ñu naan. Mhm. téere sàngam. diw am na ko. waaye diwoo ko mën a jàngale. dëgg la te diw mii ci dëkk sàngam la nekk. diw mii ci dëkk sàngam yow mi ko jàng yaa ngi ci dëkk bii. mu jaral dem ci dëkk bee téere ba nekk bind ko sotti ko ci ëlloo. wala ci loo ko mën a sotti dem ca kee ko xam mu jàngal la ko. allah ma ngi loolu jar xam-xam jaraloon leen leen lool loolu lañ dem tuddee laxas dëgg la daa dem ba samp kër sax mm. déggub téere barab sàng buñ jëngagut ub kër ga dem jàngi téere bi Chine bu ñuy gi wallaay li ñu naan sëgg bu for yombee sëgg jafe sëgg jafe sëgg jafe boobu téere jafe dëgg la sëñ Tuubaa bi bi ñuy wër téere boobu ci ñett dërëm ñu ko doon jaayee wër réew mi ba moom daa ci mun am ñett dërëm ñu jënd téere bi boobu kon jafe woon na ñu fexe ba téye xam-xam. itte la ñu amoon ñoom fexe ba téye ba lislaam. Mm-hmm. téye lislaam. loolu moo fi bàyyi lislaam ba nëgëni. macha allah mooy ñi kon ñu mat a ñu mat a jaajëfal lañ. dëgg la ñoom ñoo ñu sàmmal yëf yi ba mu yegg fii mm-hmm. Mm-hmm. bi mu euh, suuba ci la mu xam-xam na moom suñ dawla sax. ñetti xeeti xam yi jiitu. te moom lañ war a njëkk a tàmbalee. Euh, te mooy xam-xamu tawxiid. wéetal suñu borom wéetal la yàlla xam-xam fiq fiq mooy atey lislaam atey lislaam yi xam-xamu tasaw mooy sellal noo koy sellale suñ Tuubaa dafa waxoon ne euh, aqsaamu diini rabbina al iman mhm. wa baadahu islaamu wal ixsaanu mhm. xaaji diini yi mhm. imaan ci gëm ba ci jiitu iman mooy xam-xamu tawxiid islaam mooy xam-xamu fiq ixsaan mooy xam-xamu tasawuf kon lislaam ñetti xaaj yi la benn mun ci dem bàyyi moroom ci nit kii bu amee imaan képp te jëfut am njëriñ dëgg la de. gëm yàlla rek waaye jëfoo li li islam li yàlla santaane defoo ci dara. Mm-hmm. waaye gëm nga daal yàlla am na. Mm-hmm. loolu amul njëriñ. dëgg la alxuraan wax nañu ko xaalatil araba amanna qul lam tuuminu walakin qulu aslamna wala maa yadxul iman fi mm-hmm. te gëm ko fa ànd ak fas waaye lislaam kese it ak jëfi kese it doyut ndax nit ki mën nay jëf di ànd ni di julli di woorandoo de dem màkk def lépp te yàlla taxul ñu ko def ngir bëgg ni di woo mën a dem jàkka a dem màkk loolu tax kon loolu sellul mhm. kon faawu ihsaan ñëw te suñu borom dani woon lu ne rek sell ga la ca soxla sell ga la mhm. taxut mhm. eh, amul njëriñ kon ñett yi moo tax mag ñi ñetti xeeti xam-xam li daan jiital lislaam al iman wal islaam al ihsaan muy at tawxid al bi mu ci xeet yooyu jàng ko ba peeg ko itam mm-hmm. sóobu ci li ñu al aalaat muy mm-hmm. suñu tuwaay ay jumtuwaay mm-hmm. mooy xam-xamu grammaire arab naxwu arabia mantiq bayaan maani badian xeeti xam-xam yooyu nga xam ne mooy tax nga dégg ñetti xam-xam yi boobu tax it nga dégg alquran itam ndax alquran dañ ko wàccee ci làkku arab bi lisaani arabi bi lisaani arabi ñu biin kon faaw nga nga mboolem li nga xam ne mooy moom moom moo moo ëmb arab dégg nga ngir mën a dégg nag message su borom boobu ba xam nooy jaamoo yàlla mm-hmm. ndax sunu borom moo waxoon ne i'rifuuni qabla an ta'buduun fa in lam ta'rifuuni fa kayfa ta'buduun da ngeen may xam bel ngeen maa jaamu mm-hmm. su ngeen ma xamul nu ngeen may jaamu du tax mag ñi mm-hmm. ñu fekk xam-xam yooyu yëpp mu fexe ko sàkku ba fekk ko muy fàndi xam-xam yoo xam ba fii mu tool dafa jafe dafa jafe waaw looloo ko yóbbu woon kat ndar jot na dem ndar dafa sàkku xam-xam am na nijaayam ji wax sëñ Mouhamadou Kan nitu yàlla la ndax li tax ma wax loolu mooy nee ñu Sëriñ Tuubaa daana wax ne ku masaan jóge ndar ñi ko waa ndar nuyu nañ la naan la ndax dem nga armée li Thiès armée Thiès fa lañ denc sëñ Mouhamadou Kane mais soo ne ko dem naa fa mu na la yow dem nga ndar soo ne ko demoon yow jutoo kon demoo ndar ndax ku dem ndar war ngaa siyaar yi jëmm jooje kon loolu waa ndar war nañ koo xam bu baax kooku ko mu doon a bàyyi xel nijaay sëñ mooy nijaay sëñ daaru eh, eh, jàngal na ko waaye yar na ko mm-hmm. ci maanaam li ñu maanaam tàggal ko ci li ñu tuddee tasawuf muy tarbiya mm-hmm. eh, mooy léeg-léeg wax nañ ne baaram bi da ko bàyyi woon yooyu gudd lool ba dëgër da koy woo ba mu topp si mu teg ci tànk bi bés ba mu ba mu yëg na metti mu ne ko ndax ni metti na xam nga yëg nga ni metti mu ne ko waawoo mu ne ko nanga nga yàlla ba yëgee ko noonu jar na xam nga kon tàggat sa tee lañ koo tàggat ci ndaw ci jaamu yàlla hmm. moo tax buñ demee si kanam dañ xam na jaamu yàlla gi mu doon toggoo dañ koo jaarale ca yoonoon ba ba ba mu roode ca hmm. ba munu koo ba hmm. xam-xam it moo ko wommat ba indi ko Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor daal di sëriñ Mor Anta bi muy ñëw Mbàkke Kajoor booba sàkku xam-xam moo ko yëkkati woon indi woon waaw loolu yokk ëlluwam te daara sëñ Mor Anta Sali bokkoon na ci daara yi gën a mag ci réew mi man damay wax ne mhm. jamono booba daara sëñ Moussa Mbass bi gën a rëy ci réew bi a rëy ci réew mi xam nga lu tax mhm. euh, booba mboolem mag ñi mhm. daanuy wër daara yëpp waaye daara sëñ Mor lañ daan teere ji muy benn ñaareel bi loolu ma wax fu ma ko tegin mooy mhm. sëriñ Tuubaa kenn ku ne xam ne du bind di wax ci bakkanam déedéet a boo xam mhm. bu la jegee mutu ci yow seere mhm. waaye loolu moom régal boobu tënkut sëñ Tuubaa déedéet sëñ Tuubaa li muy wax yàllaa tax muy wax déedéet daa def xasida goo xam ne koo jëmee ci sëñ Mor Anta Sali goo xam ne bayit bu njëkk rek wane ne na daara a ahkaami yaa xawsa dillili yaa xarmu yaa naamuusa yaa xutba dal jiili allahu akbar man bon al ahkaam xam nga mooy bal waaye xam-xam xikma dëgg la xikma te alxuraan moo ne woon yute xikma la sagesse ku ko yàlla jox yiw a gën a rëy la la jox dëgg la suñ tubaab ne jamono boobu suñu mooroon si mooy man baax bi maanaam xikma ci moom lay ballee nga xam bu doonum ndox moom mooy forage bi mooy sant mooy centre kii bi ku koy wut ku ne fa fa nga koy wut fa nga koy wute fa ngay ñoddi sa bërëb bi nag boobu nga jëfandi jëf xaw sa bëlleen mooy gumba bu ñu waxee gumba nag mooy ku jëm ci yoon yàlla koo xam ne maanaam daa xam fu muy jaar mhm. yor ab tumam mhm. nee na jamono boobu sëñ Mor Sall mooy xawsu bi mooy xettalikat bi koo jox sa tum moo mën la sa borom muy ñaar xarmu nen boobu mooy kilifa ak jamono ji waaw jamono bu ne am na ko suñu borom désigné muy doon kilifa sëñ Tuubaa nee na mooy ku yàlla déglu ci jamono xam nga xam nga yàlla dana dégg ñëpp waaye dégluwul ñëpp dëgg la yàlla dégg na ñëpp waaye dégluwul ñëpp dégluwul ñëpp waa loolu loolu sew sew la am na ñoo xam ne ñoom la jagleel di leen déglu di leen déglu waaw nga xam ne bu ñu ko bëggoon a joxe misaal ci mbirum àddina mm-hmm. président de la république bi nekk ci capitale bi mhm. am na lu ñuy tudde gouverneur mhm. bi nga xam ne raison bu nekk mhm. gouverneur ba lay déglu moom lay déglu waaw nga xam ne moom président kon kam teg ca kii ba di ko déglu kooka lay déglu ci la xew foofa buñ ne ko nangam xew na fa moom lay laaj waaw kay lu mu ci wax rek loolu lay at loolu lay at <laughs> na solo euh, sëñ Tuubaa may wax sëñ Mor Sane mooy naamus naamus mooy ki ñu dénk secret buur bi buur bi mooy suñu borom. allahu kon loolu moo tax ma wax ne jaaree sëñ Mor Sane kon ak mag ñi fa daan daje. te <laughs> kàngam ñi fa daje woon buñ ci kanam bu ñu leen tuddee. Mm-hmm. dañu xam ne ñii duñu ay como. dëgg la kon ma des naa tudd daaraam. muy mm-hmm. université islamique bi gënoon rëy ci réew mi. dëgg la foofa la sëñ Daaru Xasan mottilee ëlluway xam-xamam. Mm-hmm. foofa itam. kàngam yu bari dañ faa dajee. dëgg la bañ fay jàng itam ci anamu nañ doon jànge mooy dañ doon jàppale sëñ Mor Anta Sali ci daara yi mm-hmm. ndax kenn ko xam sañ sëñ sëñ Mor Anta Sali xaadi la woon dëgg la daan atte mm-hmm. léegi mu dem jóge Mbàkke Kajoor dem Cilmaxa mm-hmm. atte ji ba bëccëg mu ñëw ci daara ji war a jàngal donga yi war a jàngal donga yi dëgg la suñ tam mi ngi koy genn ko ci biir xasida gas naan ko mm-hmm. su su nit ñi su kiñaan mur woon seen xol mm-hmm. daa ñu fëkk seen i ëlloo fa ñu nekk ñu fekk seli fii ngir sàkku si xam-xam ndax man ngee joxe ak laabiir gi mm-hmm. ak leerum njàngale macha allah yéen mi koo xam ne ni bi ko sëñ bi bokk na ci xasida yi sëñ bi ka taalif te luxaa lool sax nag loolu sax yaakaar naa ne mbokku taalibe yi nga xam ne ñi ngi wër di lijjanti gan xasida la sëriñ bi njëkk a taalif mhm. budul moom it bokk ciy njëkk yi waaw ndax fa ko sëriñ bi taalifee booba yoonu murit amagul waaw booba sëñ Mor Anta Sali mi ngi fi mi ngi jàngale te booba sëriñ baa ngi ci daara ji moom itam di jàng ak a jàngale waaw nga mhm. euh, sëriñ Moustapha sëriñ Abdourahmane am na téere bu mi di wax ne di ca nettali wax ne mhm. mag ñi booba euh, maanaam ni ñu doon jàppale si sëñ Tuubaa dafa xam nga sëñ Mor galfan gi mu galfan mm-hmm. ci àtt ek war a jàngale yu ma noonu mm-hmm. sëñ bi max mag ñooñu fa dajee woon mm-hmm. ne leen nañ jàppale sëriñ bi ci daara ji mooy yow fànn bi nga spécialisé nga di ma ko jàngal man bi ma spécialisé man ma di la ko jàngal kee noonu kee noonu ñuy jàngalante ci seen biir nga xam ne kenn ku ne téere ba nga mënul wala fànn ga nga mënul sa moroomum dongo ci daara ji moo la koy jàngal bu ko defee sëñ Modou Sène nekk comme directeur daa ma ma école bi wala wala daara mm-hmm. noonu noonu la noonu la daara ji de noonu noonu jàngalante ci seen biir loolu. nga xam bu ñu noppee ñoom ñëpp kenn ku nekk da ngay peeg. Mhm. fànn yëpp da ngay xam nga bu fënul sa morom na ko jàng ba nga fekk ko yéen nga jàng ko mënul rek noonu lañ doon jàppale si ci daara la. loolu sax système enseignement la boo xam ne ba fii mu toll. lu ñu war a jël la. la dugal ko ci biir daara yeek école yi. Mhm. maanaam euh, ngir ngir maanaam mën a organiser. Euh, façon njàngin mooy li nga doon wax léegi. nga xam ne nit ki bu góorgóorloo diir bu gàtt mhm. euh, fànn gam doon concentré wu nga xam ne mhm. ca la nekkoon moom rek mhm. def ci at yu bëri mhm. dana mën a boole fànn yu bëri nga xam loolu système la boo xam ne daal jamono soxla na jamono soxla ko mooy li nga doxalee mag ñi bu ñu leen waxtaanee rek mag ñi mën ko ndaw ñi jànge ci ba léegi seeni bind bu ñu ko jàngalee ba léegi réew yi mën cee dox léegi bañ dajee daara yi jàng nag yàlla dogal na moom sëñ Daaru Xasan ma nga fa woon sëñ Samba Diop Sam men ma nga fa woon sëñ Ibra Sarr Njaañ ma nga fa woon sëriñ Adama Guèye ma nga mm-hmm. mag ñooñu mm-hmm. nga xam ne bi yàlla dogalee ci mille trois cent mm-hmm. euh, ci gàddaay yonte bi sallallahu alayhi euh, mooy mille huit cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre dégg nga effectivement jamono boobu sëñ Mor Ndoussa Ly wàccub liggéey bi yàlla dogal mu wàccub liggéey dañoo xam ne sëñ bi dafa des Mbàkke Kajoor sëñ Tuubaa moo mag ñooñu ñi nga fa di sàkku xam-xam sëñ bi des Mbàkke Kajoor di diirum ñeenti weer fukki fan mooy diir bi soxna yi di liggéey jóge fi dem gànnaar ju jëkk ja hmm. ah diggante boobu sëriñ bi demoon na ci gànnaar. bi bi bi ñeenti feer yi ak fukki fan yi jàllee sëriñ bi dem na gànnaar. Hmm. di siyaare ji kilifa yi fa nekk ak maanaam bu nit yàlla yi mel noonu. parce que dafa juróom-ñetti weer. Hmm. dellusiwaat Mbàkke Kajoor. def fa ñeenti weer muy at ak gànn wàll. mu door a woote yoon wi. loolu mat tax xam la <laughs> ñu ñu ñu bëri dañuy jàpp ne mm-hmm. eh, bi sëñ Mor Anta Sali wàcceeb liggéey 1880 mm-hmm. eh, mm-hmm. sëriñ bi dafa des Mbàkke Kajoor toog fa ba ca déwén sa rek mu woote yoonu murit mais kon loolu mat a bàyyi xel dem na fi gànnaar am fa juróom-ñetti weer dellu si waan Mbàkke Kajoor toog ñeenti weer door a woote yoon wi mm. bis la xëy maanaam dañu ñu fanaanee laylatul xadar alxames bët sëddi ajjuma muy yor yorum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ca koor ga dëgg na mu ñaar fukk ak juróom-ñaar si koor ga. Mhm. yor-yor. te bisum ñaar fukk ak juróom-ñaar boobu li di symbole ci lislaam mhm. ci weeru koor. Mhm. mu mu mu ñu fanaan li xam ne la. mu wax waxam ji siiw jooju nga xam ne la ko nopp masa daloo. allahu akbar. xam nga. shaafahani rasulullahi Mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam bi qawlihi mm-hmm. rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbihim bi darsi faqat mm-hmm. Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo def mushaafaha mushaafaha xam ah, maa ngi jàkkaarloo yow di wax nii nga gis samay tuñ di di raaf baat mushaafaha shifa tuñ yi la eh, da koo gis jeexeran waaw ne mu ne ma sa saxaaba yi muy dong yi li wër yar leen ci li ñu tudde al himmatu mooy ñoo am ittee àkk ci yàlla te bu leen yar rek ci di leen jox bind kese li muy baax a baax. Hmm. waaye bind ma ne ko nañ jëfandikoo nañ ko jëfandikoo ngir àgg ci seen borom. xam nga xam-xam du du du raaya wasiila la. dëgg la xam-xam dañ koy hmm. hmm. la dégg nga am solo la la. <laughs> dëgg la mu ngi noonu. boo ko amee ba pare. yow nag da nga koy jëfee nag. dëgg waaw dëgg ba mooy jëf waaw naa sax am na. lu ci sëriñ bi waxoon lu tolloog li nga wax nii mm-hmm. euh, ma nga doon tàmbalee ci ne euh, ki nga xam ne dafay jëf te amul xam-xam mm-hmm. euh, nee na jëfam day tasaaroo mm-hmm. dama fàtte bayit bi fu mu toll mu teg ca ne am xam-xam di ko jëfe mhm. ba pare jëfewu ko dafa mhm. mel ne mbaam mu safay téere mhm, muy wow man xawaa xilman wala sa yaxmalu bii fa innahu ximaarun yaxmilu mu ne am xam-xam di ko jëfee te tegoo ko ci ay teggi ni fitna la koy jural fa kasratul hilmi bi xayraadab ñaani bi dëgg sama taxam ne la am njëriñ mooy waxlam bi annal hilma wal ahmala ka adabin tu ko si bëggal kamala loolu mooy insan naka njëkk al ilm wal amal adab la daal waaw mu ngoog amalu saali adabul mardi ñett yoon la daan jàng dëgg la eh, bi bi waxee loolu ne sëñ yonte moo moom wax loolu mhm. ne ma saxaaba yar leen ci li ñu am ñu am alhimmatu ilm mhm. ahlu tasawuf ni ñu ko doon mooy am itte àgg ci yàlla nañ ko firee sax euh, pasteef pasteef waaw waaw pasteef bi nit ki am ngir sàkk li muy sàkk àgg ci yàlla waaw wala turabbihim bi dars faqat bu leen yar ci jox leen bind kese waaw faxat jooju nag sëñ bi lu mat a lu mat a kii la taxaw la ndax xam nga foofu xam waraatu bi bi ñu ci mm. bëri daanaka dañ fay yem waaw dañ fay yem mm-hmm. daa ne kon sëñ bi booba dafa tas daara ja déedéet waaw waaye faxat jooju moo moo leeral ok bu leen yar ci jox bind dong kon sëñ bi bay wut jàngale daa soppi aw jàngalin sëñ Tuubaa musta bàyyi jàngale daa soppi aw njàngalin dëgg la daa soppi aw doxalin mm-hmm. système beneen système la jël mm-hmm. bi loolu amee Eh, macha allah waaw. Hmm. léegi kon ci kanam tuuti daañu ci daañu ci gën a yaatal. waaw eh, ndax yaa ngi toll ci woote bi. Hmm. woote bi bëgg nañ nga taxaw ci ci kanam. Hmm. Eh, waxtu yi ñu war a tënkee xibaar yi ci kàllaamay wolof. Mamadou Omar Ba ma nga ne toog moom la ñuy àndal léegi ci RFM Nuit ñu koy gërëm bu baax di ko sant di nuyu au sama xarit Amadou Sabar Ba. ci kon Mouhamadou ñu bàyyi Mamadou Omar Ba mu tënkal ñu xibaar yi ci kàllaamay wolof ñu ñëw ci ñaareelu xaaj bi. Eh, ci li nga xam ne moom moo di RFM eh, ci ñaareelu xaaj bi ci seen émission yóbbalu jullit eh, daanaka sax bu noppee mënees na ko far daanal rek <laughs> ca kon Mamadou Omar Ba benn waxtu di une heure jot na sëkk ci mboolem gox yi Sénégal yi ana li gën a fës ci xibaar yi. jërëjëf une heure moo jot kon ñu dikk ak yéen ci tëngum xibaar yi zone des Niayes béykat yafa fa yeewoo ne engrais bi dafa cher lool saak bi doon jar juróom euh, ñetti junni léegi mi ngi jar juróom benn junni ak lu teg li nga xam ni impacté na bu baax seen produit daanaka lépp mi ngi nëb ñoom nag mu ñu koy nakkarlu ba amaloon tey sitting Cheikh Anta demoon na ca dégg ngeen ko ci suñu jotaay xibaar yi weesu Kër Xaali ak Daaru Salaam ñaari quartier la ya nekk ca commune bu Tivaouane foofu nag euh, ña fa yeewoo ñoom it dañoo amaloon sitting li ñu bëgg mooy autorité locale yi euh, defaral leen ay lampadaire ay euh, ngir mu wàññi agression yi ak ñàkk kaaraange ga nekk loolu nag ne bu antuwul dinañ ko yóbbu ci yoon ndaxte maire ga fa nekk daanaka nee nañ defalu leen dara ab lakk tey la waa quartier Escale ba nekk ca jurbeel tey yeewoo ay booru 15 heures euh, xal bi nag mi ngi jugee ci benn imprimerie laal euh, benn kër bi nekk ca wet googu Euh, daanaka nag kenn faatuwu ci waaye dégâts yi moom bi ñu xaymaa jéggi na dayoo ndaxte mat na ay millions ñu teewlu ci Alimatu Sarr. Des millions partis en fumée. Un incendie s'est déclaré à l'imprimerie Serigne Fallou Mbacké 6 au quartier Escale. Tristesse et désolation anime. ay millions ab lakk daal di koy yóbbaale mi ngi tàmbalee ca imprimerie Serigne Fallou Mbacké ca quartier Escale tiis ak njàqare dal lekk waaye ji nga xamante ni ci ay bëtam la këram ak entreprise am lakkee ba jeex. c'est difficile de vous expliquer comment ça s'est passé. Il y a une grosse perte de toutes les façons. Il y a des millions qui donte sax ñëw nañ ci waxtu sapeur pompier yi jot nañoo am ay jafe-jafe ngir fay lakk gi na Ibrahima kamara dañoo fekk bâtiment bi tëju ñaari atelier imprimerie la woon bi ñëwee tàkk-tàkk bi commencé na dem si kaw il a fallu que ñu jaar si kër gi nga xam ne nii moo dënd moom pour mën a sëpp lakk gi pour mën koo fay atelier imprimerie dafa am ay papier papier yi ñoo bëri ba nga xam ni dafa xëppi tàkk gi tàkk-tàkk bi law yàlla daf ñu engagé lu mat fukki nit ak juróom benn fourgon comme koo xam ne nii moo ñu dimbali ñu mën a dimbali ñi nga xam ne nii ñoom ñoo amoon jafe-jafe waaye doole gi lakk gi am jot na laal rek dëkkandoo a metti bakkan jotu ci te wax dëgg yàlla li ci yàqu-yàqu matériel rek la te yàlla suñu borom moo ñu ko joxoon mën nañu demaat yàlla joxaat ñu lu ëpp loolu ñu ngi si sant yàlla di si sant véritablement dëkkandoo yi jamono ji nag li waral lakk gi xamaguñu ko lieutenant Camara di ñaax askan wi ñuy gën a bàyyi xel ci courant bi ci jamonoy tàngaay gi naka noonu di saytu seeni installation électrique yi ñetti weer yu nekk Diourbel Alimatou Sarr rajo Futur Média Alimatou Sarr foofee ca Sédhiou boutique yi daanaka lañ baguette bi jar léegi deux 200 francs ñoom deux 200 ñaari ñaari 200 euh, nee nañ ñoom amatuñ ci dara waral ba population yi léegi bu ñu soxlaa mburu daal ci boulangerie la ñuy dem dégg ngeen ci Bakary euh, Konté di suñu correspondant foofee ca Sédhiou ci suñu jotaay xibaar yi weesu euh, Pathé Thiangaye nekk ca Kaffrine Euh, foofu population yi 18 villages yi fa nekk dañoo bëgg ñu defaral leen commune euh, li tax nag euh, mooy seen yoon yu bon yi daanaka dinañ ko si defaraale ndaxte Pathé càngaay ak Gambi dafa bëri ay pax daanaka ku fa jaar rek sa bakkan mi ngi ci xottu gerte dégg ngeen ci kon Omar Ndiaye tàggat yaram lañ koy jeexalee CAN Cameroun 2021 ñaari match ci samedi bi Nigéria war a tase ak Soudan bu 16h jotee 19h Guinée Bissau war a tase ak Égypte. jërë jëf une heure moo tegal ñeenti simili fii la ñu yemali ci tënkum xibaar yi euh, yeneen jotaay xibaar bu 2 heures jotee flash ci français lay doon ñu bàyyi leen rek ak seen émission yóbbalu bés bi ak Serigne Mame Mor Mbacke jërë ngeen jëf. يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد رسول كريم بيتنا سار أحمد وخاسى والموت وجعل سرمدا رسول سفير في البرايا محمد المختار لا خلق مثله لا مدعي قد خدت والعود أحمد أتاني بسم الله جمت هبات بصير عبيد والأنساب jërëjëf euh, Mouhamadou Lamine Sow jërëjëf it euh, Mamadou Omar Ba jërëjëf euh, mbokk auditeur ak auditrice yu rajo Futur Media ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen jaajëfal ci kóllëre gi ak fidélité gi déglu bi waxtu bu ne ak saa su nekk mbokki na xam ngeen ne tey jii la ajuma seen émission yóbbalu jullit bi nga xam ne moom la ñu ànd ak yéen ajuma bu jot. Eh, di ci indi ay waxtaan yu am solo tey jii nag eh, mu am lu spécial loo xam ne eh, sax dama koy fàttali émission yóbbalu jullit ñu ngi ko tàmbali woon ci atum 2015 fële ca RFM Mbacké ba ci atum 2019 lañ ko indi file ci diwaan bu Ndakaaru yaakaar naa ne émission bu spécial comme nii ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy soog a def ginnaaw bi nga xam ne suñu suñu premier invité Serigne Mbacké loo ñu gën koo miné ci gaydel euh, borom ma yu am solo yi moom lañ fi euh, njëkk a invité euh, suñu deuxième invité 2015 ba léegi laay wax ci daanaka juróom-ñetti at wala juróom-ñaari at mi ngi soog a mat ñaareelu invité kon xam ngeen ne loolu lu ñu ñor la lu ñor itam kër gi lu ñor groupe Futur Média la ñor rajo Futur Média ñor télévision Futur Média ñor itam groupe Futur Média di profito itam di gërëmaat. Euh, Serigne Pathé Dia bu télévision Futur Média mi nga xam ne wax dëgg yàlla émission bi euh, bokk na ci ñi nga xam ne am na ci taxawaay bu am solo euh, dool li gërëmaat it Babacar Fall directeur bu information wala bokk rédaction bu rajo Futur Média moom itam. ñu koy gërëm bu baax di ko sant di gërëm bu baax it yéen mbokki auditeurs yi nga xam ne yéen a ngi déglu ci kanam tuuti daañu fas yéene yaatal jataay bi ci 33 849 16 40. Euh, yéen a ngi déglu RFM euh, fépp ci Sénégal ci suñuy euh, fréquence yi nga xam ni moom la ñu am ci mbooleem gox ak goxaan yu Sénégal yi Euh, tey jii ñuy waxtaane kenn ci magi ku tedd ki di Cheikhul Khadim di waxtaane kenn ci magi lislaam yi euh, moom moo di sëriñ Darou Assane Ndiaye ñu am nag dalal ci suñu mbokk mu tedd mu baax mi nga xam ne euh, macha allah di ñaan suñu borom defal ko tawféex defal ko mucc ci xam-xam bu rafet ak bu sell bi ak fasaha bi nga xam ne suñu borom xéewale na ko ko yal ko suñu borom yokk te gën koo dimbali gën koo kattanal mu di Cheikh Mouhamadou Ndiaye Assane mu bokk ci kuréel bi nga xam ne moo tënk rek mën nañ ko waxee noonu ci wolof soppee Serigne Darou Assane Ndiaye mu bokk ci commission bi nga xam ne ñooy saytu wàllu dundin wi ak euh, jaar-jaar yeeg euh, lañ mën a jàngati ci moom buñ boolee yëpp moom mooy li ñuy tuddee culture euh, saxaafa ñu waxtaanee ci pàcc bu njëkk bi nag sëriñ Darou Assane Ndiaye yaakaar naa ne xam nañu mooy kan ci Sénégal ndax bu ñuy waxtaanee kilifa ak diine mooy kan ci diine am na solo waaye mooy kan ci Sénégal yi dafa am solo. Mm-hmm. yaakaar naa ne xam nañu mooy kan ci Sénégal ci diggante Njàmbur ba Bawal ba Ndar. sóobam ci wàllu xam-xam gannaaw ba askanam la ko jiitu euh, waaye na mu géejoo woon ci xam-xam ak coono bam ci daj itte jam ko joxoon ba tax mu am ci lam ci am ñu toll nag ci pàcc bu am solo boo xam ne euh, xam naa ne Cheikh Mouhamad euh, dañ koy borosaale ak laaj boo xam ne rek moo lay bàyyi nga continuer ndax man daanaka faf toog déglu daf may gënal ndax li ngay wax moom daanaka déglu rek moo ci suñu warteef yaa ngi tolloon ci wooteeb yoonu murit ci ku tedd di Cheikhul Khadim Eh, ca Mbàkke Kajoor mu di saafahani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jooju mhm. bi xawlihi rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat mhm. nga doon ci def leeral yu am solo mhm. bëgg naa buñ ci noppee rek ñu daal ciy toftal jébbalug sëriñ Darou Assane Ndiaye ndax moom li ci li ci mat a bàyyi xel ci njaal nag yoon wi ci ñi njëkk a jébbalu juróom ñi njëkk a jébbalu ci sëriñ tubaa sëriñ Darou Assane ci la bokk léegi nag daañu waxtaani njébbal gi waaye ba mu jébbaloo ba noppi itam eh, nu ko sëriñ bi doon tarbiya eh, fu ko sëriñ bi farale woon nan la àndeek sëriñ bi Mbacke Kajoor Mbacke Bawal Daaru Salaam ba Touba nan la àndeek sëriñ bi bi sëriñ bi demee ci géej gi loola benn laaj lay bon boo xam ne bu gudd lay doon rek mm-hmm. eh, juróom-ñetti at yu manqué yi sëriñ Touba def ci géej gi mm-hmm. eh, ba ci ñeenti ati gànnaar yi ba ci juróomi ati ceyin jolof yi mm-hmm. ba ci eh, mën naa ne eh, diir bi sëriñ tubaa nekkee njaareem mm-hmm. ndax bu ma juumul bi sëriñ tubaa nekkee njaareem ci la wuy ji boroomam mm-hmm. ci 1924 njëkk 1927 bi ko ko tedd ki di Seexul Xadim fekkee ajana eh, parcours boobu diggante boobu bëggoon nañoo xam sëriñ Daaru Asan lan la fi dund nan la nekkee ak sëriñ bi jërëjëf sëñ Mamor ci laaj bu am solo boobu daanaka fi ñu daanele woon rek Euh, mooy euh, moo sof suma sos rek ci laaj boobu nga wax mm-hmm. ndax daanak mooy njëbalu sëñ beeg sëñ Darou Xasan ci sëñ Touba. Mm-hmm. akub liggéeyam ba ni mu wàcc ab liggéey mm-hmm. euh, loolu ma wax ci Shaafaani Rasulullah bi sëñ bi waxee loolu da caa teg ne yeneen tudde da ko caa tegal ne ko rabbi kulla waaxidin minhum bi maa yaliqu bi kenn ku ne na ko yare kem la yell ca moom mooy kenn ku ne daal lam àttan na ko ko yan nee moo tax sëñ bi da daan wax ne bu leen ma gërëm gërëm leen lawbe bi mhm. bu leen ma xarab xarab leen lawbe bi dëgg la lawbe bi suñu borom la jubloo wax mooy kenn la nga mhm. ko ba mu fees dell su cër yi ëppantee ca dab yàlla te moom yëttu dab yi allahu akbar <laughs> kon la moo tax yonent bi ne moo nag waxat alamaka allahu bi bi ma fi qulubil alamin mhm. suñu borom moo ma bi may wax sëriñ bi li ne ci xol yi bindee fi mu àttan suñu borom xamal naa la ko ci sama daraja kon kenn ku nekk dabam duy ko ba mu fees dëgg la mooy doxin woow yi sa sëñ sëriñ bi dox dox yow yonent bi rek mhm. nee na sama ndab yëpp dama ko dékk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu duy ko ba muy fengat waroo fi ma an wajjatuha xabli linnabi wa kullan ma faaqal muna saara yad aw kon ay dabam yi fi noonu la def ak mag ñi bi loolu amee mhm. mu wax kàddu googu mhm. mbooloo ma daa def ñaari xaaj mooy ñi nga xam ne ñoom sàkku si xam-xam ci tëral ab téere moom lañ moom lañ xamoon ñoom mm-hmm. Mm-hmm. dañoo daal di jël seeni bagage ñoom ne ñoom gannaaw daa soppi aw jàngaliin mm-hmm. mooy dañuy dem ci yeneen daara am na mbokk mu ma ko mas ne ma ñan la ma ne ko mooy ñi kenn xamul waaw ah, loolu doy na ci <laughs> loolu doy na ci toon bi loolu amee mu mu des beneen kuréel bi mooy ñi nga xam ne ñoom suñ borom baaxe na leen ñu dégg ndee yi daal di toog baamtu ko mooy ñi suñu borom baaxee ñu dégg ndeey la. daal ñu am ndimbal ñu am ndimbal waaw. parce que xam nga loolu ndimbal suñu ndax boobu jamono boobu mag ñi mhm. ñor gi ñoroon ci xam-xam. Mhm. te loolu rek lañ xamoon. Mhm. te loola it maanaam am na solo. waaye mbaax buñ koy wax gën dafa nekkut. dëgg la. mbaax buñ koy gën dafa nangam day baax na lool. waaye nangam a gën. xam nga sëñ bi yàgg naa yàgg naa léebu mag ñi. ci raaya. atallu maa un. wala kalbab li mun sajman wala mhm. su daari ne daa bil maayi am daaru mhm. mësëy ndox la dëgg la bi door a temps bi sisal yooyu am ndox la mhm. waaye nag boo taxawee ci géej du too faale ndoxum mësëy déedéet <laughs> daal di wax lil xas bi tuulul la daa aynin lahu nazara lakin ida gattax ci toolu dugub gattax gi da ngay naan daa gudd lool waaye boo boo tiinee yam ci ron ah. du faale guddaayu gattax kon yàgg na lii mag ñi dëgg la seet yàgg naa wa junj boppam ci sëñ Tuuba kon moo tax mooy mag ñoo ñi wax mag ñoo ñi nga xam ne am nañu tew euh, euh, tawféex mm-hmm. ci teel a wuy ji mm-hmm. bi yàlla dogale mu wax loolu mm-hmm. sëñ Adama Gueye wax ne moo ko njëkk a jox loxo jaayante ak moom awalu woowu mu bàyyi awalu mun bàyyi nii Adama Gueye loolu sëñ Tuuba bind sëñ Tuuba ko bindal boppam njëkk a jaayante ak moom sëñ Adama sëñ tuuti la ko sëñ Mor Anta Sali magee moom sëñ Adama Guèye moom sëñ Adama Guèye. Mm-hmm. dégg nga sëñ Adama Guèye daal di jébbalu. Mm-hmm. sëñ Massamba Diop Sam topp ca. Mm-hmm. sëñ Ibra Sarr Njaañ mi nga xam ne moom sëñ Dero Sane mi ngi ñuy waxtaan ñoo bokkoon benn lal ci kër sëñ Mor Sëñ bi ñëpp dañuy jàng sax xam-xam moo ci topp ñetti ñi keroog ñoo jébbalu bisub ëjjuma jooju ñaar kii ak juróom-ñaar ci weeru koor wa. dëgg la ñoo ñoo jébbalu keroog ci sëñ Tuubaa. sëñ Adama Guèye. sëñ Adama Guèye sëñ Massamba Diop Sam sëñ Massamba Diop Sam Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ñooñu ñii ñoom ñu ngi ci daara yi dëgg la ñenn ñi def nañ ci yeneen daara. dëgg la waaye ñetti ñi ñoo ko ñoo def mu bàyyi jaayante moom. ci bis bi dégg nga mhm. fekk na sëñ daam Abdourahmane Lo. Mhm. sëñ bi da ko yónni woon fekkut jataayu ojj ma la. maa doon sëñ ma duggee jëmmoo yi. Mhm. ba sëñ daam doxee yónneen ba nag daa waroon ñu ko jaar dëkk bu ñuy wax cuungeen. am mbokkam moo xam ne. daa bëggoon mu indi ko ci daara ji mu yokk ëllooy xam-xam. mu fekk kooka am am tudd looloo ko tee ñëw. dëgg la. kon moo tax li wax mag ñi dañ naan samp kër ba noppi. Mhm. ub ko fa dem di sàkku jox xam-xam. moo tee koo ko ñëw. sëñ daam doori ñëw na nga gaaw la ñëw moom Mbàkke Kajoor delsi mhm. bi mu ñëwee sëñ bi nettali ko jotaay bi yor yor ajjuma yi démb ji. Mhm. mu moo leen ñeenteel. sëñ daam sëñ daam Abdourahmane Lo. sëñ Modou Gueye jëm mooy moom àndaloon ci yeneen ba juróomeel leen. sëñ Modou Gueye jëm mooy. moo juróomeel moo leen juróomeel. gaaw boobu ci la sëñ Daro sëñ jébbal moo leen juróom-benneel si ne doon topp ca nii la nii nii mu la ko limalee noonu la noonu la tegaloo njël wér nga wax yoon wi mm-hmm. mm-hmm. euh, sëñ sëñ Daaru wax mm-hmm. sëñ Jaay euh, sëñ Madou Faa Xujja Ñang sëñ Masamba Diop Samb sëñ Masamba Diop moom ñett ñi la jëkk la bokk aju euh, waaw waaw ci ci ñett yu njëkk ya dëgg la léegi sëñ sëñ Mbàkke Buso mufti yoon wi moom dëkk bu ñu wax Ngik Fall la ko xibaar ba fekk ne sëñ bi moom daa léegi jëngaleetul leneen lay wax mu dégg loolu mu bàyyi fa njàng ma fekk xam-xamu miiras doon jàng bàyyi fa njàng ñëw ci Sëñ Tuubaa jox ko boo xam delluwaat ci njàng ma moo leen na ci génn na ci daara ji moom mm-hmm. bay bay bay tasaare ci xam-xam bi doon jàngale ci xam-xamu miraas dafa doon jàng sa xam-xamu miraas dafa dafa ah doon jàng xam-xamu miraas waaw ci ak njëkk faal macha allah na ci ah, bind na mu déggee xibaar moom fa la mm-hmm. jógee daal di ñëw ci Mbàkke jox boppam sëriñ bi moo leen juróom ñetteel mm-hmm. ma euh, Madou Faaxu Dieng sa sa sëñ Madou Mbembe Mbacke tege ca. Cheikh Madou Mbembe Xabaan juróom-ñeente. Mm-hmm. ñu ngi nuyu sëñ Mamor bu baax euh, macha allah. sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Mor Ndiaye Tàggaar. Mm-hmm. moo leen fukkeel. sëñ Mor Ndiaye Tàggaar. sëñ Mor Ndiaye Tàggaar mii. Mm-hmm. moo ko nettali sëñ Moustapha am sëñ Dame Abdourahmane Lo man mii wax ci làmb yi sëñ Moustapha Abdourahmane laa ko jëlee. parce que loolu de leer na lool. noonu noonu la demee. léegi nag kon bi njëbbal gi amee na sëñ Darou Xasan mii nuy waxtaanee. jox boppam sëriñ bi day mel ne booy booy booy booy jàngat ni mu joxe boppam sëriñ bi dangay gis ne eh, daa natt sëñ bi ba xam li muy woote lu mu doon xam kii woote kan la door a joxe boppam dëgg la ndax yonent bi sallallahu alayhi xam nga ba mu njëkkee woote wootewul rek ñëpp ñëw gëm déedéet Seydina Abubakar moo njëkk a gëm moom hmm. daa dégg kàddu ko rek daal di gëm hmm. waaye am na ñoo xam ne seeni xel lañ jëfandikoo ba natt kii woot ak li muy wax lu mu doon door a ñëw am na ñoo xam ne dañ leen woon baatin ñu door a ñëw am ñoo xam ne a ñëw waaw fas dax jade booba fas dax booba <laughs> mm-hmm. ma nga noonu mm-hmm. sëñ bi mu wootee mm-hmm. ñii gis nga ña ña cotoon a dem sax ci jël benn ba mu jëkk wax ju jëkk ja ñooñu mujj ne am na ñoo xam ne dellusiwaat nañ jox seen bopp sëriñ bi Ah, ñi nga xam ne am na ñu jotoon a dem. jotoon nañoo dem ca wax ju njëkk ji. mujj na ñoom it jiitalaat seeni xel. Mm-hmm. dellu siwaat kon kon xel lañ jëfandikoo. sëñ Darou Assane mii ci ëjjuma jooju bi kaddu gi jibee daa digul joxe boppam waaye ca daara ja fa la fanaan bët si di gaaw ca guddi googa day mel ne da doon natt sëñ bi ak nit ba xam mooy kan ki ak li muy woote lu mu doon. moo tax ba mu xëyee xasida ga mu sadd. ga mu def. Mm-hmm. wax na ca ni ma ko faral di moom fi mu tolloon ci ya ci dox ci wàllu yàlla. waaye wax na bi muy dox ba yàgg li ko feeñu te muy sëñ bi ki ko feeñu ku mu doon wax na ay qualité ci biir xasida gi wa woo ci waa jamono it ne leen kaay leen kuy kuy wut yàlla waa ngi ni buntu baa ngi jox ci boppam sëñ bi ci biir xasida gi ñaanal ko ci ci mujj mm-hmm. noonu la dënk xasida gi mooy xasida ak ali xamaru adaa ali xamaru wax ne adaa ali xamaru layla fal xumtu duuna masihin min ruunaati dane guddig laay dox lay lu dujun guddi goo xam ne dafa lëndëm këriis ba xamoo fay teg sa tànk mhm. nee na ma jekki-jekki aw weer feq ndeysaan woo xam ne leer gam amee du leerug weer waaye leerug jant la xam nga foo koy xamee uh-huh. ci baat bu njëkk bi ada ali ada ali dëgg la xam nga baatub ab daw u mhm. ak baatu ak nuur mhm. noonu bu ñu koy firi dañ naan dañ naan leer rek dëgg la waaye daw ak nuur wuute nañ ci ak leer lu wér nga wax nuur weer moo koy am daw u samp jant moo koy am ashams wala si jàngal shamsha bayaan wal xamara nuuran ma ko noonu mhm. kon mi ngi noonu léegi nag daa bëgg gannaaw guddi lay dox te guddi moom weere cay feq kon du waxub jant xam nga mënoon na ne anaare lii xamarun mhm. du yàq dara ci way yi dëgg la waaye daa bëgg wane ne leer gi ëpp na leeru weer leeru jant la mooy sëñ Tuubaa mhm. moo tax mu jël baatu daw bale ci samsu waaw te ataf ko ci xamar nee na guddi laay dox loolu loolu li ñu tuddee mantiq maanaam man a waxo kii wax ak balaaxa dëgg la te loolu la muy misaal muy guddi moom bu leeree ba leer na leeruk jant. mooy leer na lool. leer na lool waaw man ñi la waaw man ñi waaw dégg nga kon mu daan di wax ne kon fal xaw ma mase mi roxonaati. Mm-hmm. nee na ak ndox na kon mooy toog bañ a dem. da ngaa bëggoon a dem eh, lëndëm gàllankoor la. léegi gis nga gis nga leer gu naan ñu nga xam fi ngay des rànc nga toog bañ a dem nee na li muy ëllëg sa tuddee roxona mooy ak ndof ak ndese. daa ne nag arrêté yaa saaxi min ajli tadakkur wa xuwa tadakkur asl bisharaati daal tàmbalee mel na kuy wax ak jëmmi kuy ànd ku ànd ak nit ci aw yoon di wax fekk ruux ak boppam lay lay waxal mhm. aluta sa bu ñu ne yaa saaxee rek seen ruux ak bopp lañuy la ñuy waxal yow jëmm ji mhm. sama àndandoo yi mhm. yaa ngi foog foog mooy ñàkk a nelaw te dugg di ñàkk li ñuy wax weer ceek dëgg la yaa ngi ñàkk a nelaw te loolu li ñu ko yóbbu mooy lan min ajli tazakuri man huwa tazakuru huwa aslu busharaati danga tëdd di xalaat ñàkk nelaw say nelaw dem mhm. ngir ngi xalaat koo xam ne xalaat ko mooy mooy cosaanal mbég yépp mhm. ba léegi mi ngi junj sëñ bi mhm. dëgg sa kon xóotasa ko asuraat waxal radita baqa an geyri saaxaati wa in ndax gërëm ngaa dem ci benn pàkk bu dul pàkk waa ji may wax di ko siyaare ji soo ko defee musiba mu rëy dal na la allahu akbar fa azimi musibaati kon mi ngi déclaré waa jamono kii woote kana mhm. fa azimi musibaati mi ngi leen koy présenté koy daan ne zuril xabib alladi mhm. balay mi jëm ruuxu boo xam lay waxal de zuril xabib alladi yaqud zairahu mhm. waaye da nga dégg ne kon mi ngi woor ñeneen jugal siyaare ji soppe bi nga xam ne dana womat képp ku siyaare yi ila tariqi najaati wal karaamaati jëmale ci yoonu mucc adduna alaxira ak teraange adduna alaxira nga ne ko koy mooy kan mu ne huwa alladi kaana lil anaami marhamatan min rabbihim fii dunyaa wal qiyaamaati ba tey tuddagu ko déedéet <laughs> mooy ki nga xam ne yërmande yi ju sun borom wàccee ci jamono la ñeer waa ñeer waa jamono mm-hmm. adduna ak alaaxira nag mm-hmm. nga ne ko ne mu ne daaka al bakkiyu alladi al baari u faddalahu ala kathir min man xaadul madiyaati mooy ki askano mbàcke nga xam ne yàlla mi bind moo ko gënale ala ci ñëpp ñoo xam ne suñu borom da leen jox ay masiyat ay may ñu mhm. nit yàlla yi mhm. nee suñ delloo suñ tuwaa da suñu borom daa jël suñ tuwaa teg ko ci kaw nit yàlla yi mhm. ala kathir min xaadu madiyaat daal di nag ki may wax mooy kan mooy gaythun karimun taqiyun naasixun wariun nafuun nafuun mafatihul xuyubaati allahu akbar eh, sëñ boo seetloo ba yoo jàngat ko cey dangay gis maanaam maanaam maanaam li ñu tuddee mantiq ak balaax muy mën a wax daal mën a waxuk daal bu ñu ko doon tënk ci wolof dañ naan ak ak mën a wax. day mat wax ji day mat sëkk. way mhm. dafa doy waar. Mhm. maanaam mën a nazmu. dëgg la nazmu mooy li ñu organiser. dëgg la mhm. ko ci wenn bayit jëme ko ci jenn jëm. yenn bayit yooyu juróom-ñetti qualité yoo li ci nekk dana mooy sëñ Tuubaa. dana xëys la. xëys mooy li ma wax ci baat bu njëkk Aba Ali. wala arab day wax matar mhm. di wax xays mhm. matar taw lañ koy lañ koy firee noonu wala xëy si ab taw lañ wax mhm. wala nga ne waame sax bokk waaye taw yi bokkuñ waaye taw taw yi bokkuñ waaw ku ne xam ne wii sax waame la xamal mooy matar taw lay doon boo xam ne naa bari lool mën naa ñoral gàncax waaye mën naa daanal ay tabax mën naa doon am mbënd mën naa yàq ay kër loolu yoo mën a jàngal mhm. nawet bi yoos gis nañ mhm. bari nañ ñu génn te mhm. te mataral leen koy baax taw bu baree leen koy waaye xays nag mooy taw boo xam ne day ñoral gàncax di jariñ te du lor mu ne Sëñ Tuubaa xays la kon mooy la Sëñ Tuubaa xam sax na fan bi laa dara wallaahi leer na de xool loolu lu mu tënk fa ci baat boobu xaysun Sëñ la kenn xamul lu mu doon nga ne mooy kan mu ne karimun ko tedd ngoo taqiyun wayut wayut ku régal yàlla nee na jàppal Sëñ Tuubaa xeesun yu taqiyun naasixun booy wut ku laa biir te mën a laay biir jàppal sëñ tubaa warian booy wut ku sàmm jàppal sëñ tubaa waaye nafoon nafoon ci njariñ luy jariñe surtout nit mën naa doon njariñ mm-hmm. wala nanga mën naa doon njariñ waaye du la jariñ waaye moom daa doon njariñ ba nopp tax day jariñe nafoon nafoon waaye mooy ma faatix loxo yu baate ne caabi xëy bi suñ borom mooy sëñ tubaa mu juróom-ñetti qualité yoo xam ne sëñ bi ràbb na ko ci wenn bayit woowu ne mooy sëriñ bi ndeysaan li nga ne mooy déggoo gu ma wax mu ne la xawsun mm-hmm. mooy kuy xettale waa jamono xettale kon waaw xawsun kafiilun mm-hmm. mujiirun zaahidun zanadun sanadun kanzul masaakini man nawxul maraamaati allahu akbar kuy wut ab làquwaay nee na mooy sëñ tubaa kuy wut ku dëddu adduna jàppal sëñ tubaa mm-hmm. kuy wut wéeruwaay sëñ tubaa ngi nii dégg nga na na raisine masaakini mm-hmm. waaye ñàkk yi mooy seen trésor mm-hmm. Mm-hmm. naa waxal maraamaate lu waaye di sàkku mooy mooy ki dëgg la dégg nga nafon mu xaatul ko mën naa waxal maraamaate am na xale bi naqi naa sa xusuman ximal araamili dafaa ur raziyaati ndimbalal yàllaa ngi nii ñi tudd ay ay armala mooy ñi nga xam ne seen i borom kër da leen mën nga na mooy koo xam ne daal da ngaa amul dara ci adduna nga xam ne amul foo làqu foo wéeru hmm. jaaxle nga nee na kaay sëñ tubaa ngi nii te mooy jañ mboolem lor yëpp itam daanaka ki may wax mooy muniiru diini ilahi naasi rafiuhu xadimu xayril wara naafi dalalaati mi ngi door tudd su koy soog <laughs> mooy ki leeral diine suñu borom yi subhaanahu wa taala yëkkati ko ba mu ne fàng te mooy liggéeykatu Moustapha ba sallallahu alayhi moo fa dàq ak lëndëm ne moo fi dàq ak lëndëm. dafa war a ziyaati. daal ne nag waa jamono attention nag ki may wax ñaar la amee. mooy. la ma waxoon ci yonte ba mu sëñ rek. sallallahu alayhi wa sallam bazlun wa basun liman laanu man jaaru ku nooy daal boo ñëwee. moom boo bëggee dëgërante bopp nag jees jàng. Bashiran wa Nasiran. Bashiran wa Nasiran kon mi nga xam. sëñ Tuubaa nag attention def leen nag ki may wax nii. man zaarahu li hudan aw zaarahu li nadan aaba bi maaraami min geyri nasiaati képp koo xam ne dangay ziyaar si sëñ tubaa ngir sàkku si ak njub sooy dem da nga ko yóbbaale ku ñëw di ko siyaar yi ngi sàkku si alali adduna wala ak may dong sooy dem da ko yóbbaale waaye man jaaxoo li i'tidaa'in aw adaaqa bihi baa bi xusrin wa qam'in wa uqubaati nee na ku ñëw na ngir bëgg koo noona war a ba koo xatal nee na sooy dellu ñett nga yóbbaale pertaa mbugalum suñu borom ngi yóbbaale ak tar-tar jafe-jafe wallaay kon ma ngi noonu kon lu mu tama tandikul daane nag lillaahi xarzurtuhu laa xayrahu arabi mhm. islay su sine te hindi bi xawaajaati nee na yàllaa tax ma ñëw di ko jox ko sa bopp nee na taaru hind mooy altasa boo déggee ñu tudd jëfandikoo hind mooy hind jigéen la teru jigéen la mhm. waaye adduna lañ wax mhm. moo tax ma ne taaru adduna taxumaa jóg islay sine hindi bi xawaajaati du sama itte mel na da nga ne ko luy sa itte kon mën wa himmati shukru rabbi la sharika lahu jàlla lahul arduuna kas samawaati allahu akbar ne lii sama itte ba tax ma ñëw ci suñ duwaa jox ko saa bopp mooy ma am ngërëmal sama borom cantuk sama borom mi nga xam ne amut kenn ku bokkaal ak moom ngóoram ga mm-hmm. moom asamaane juróom-ñaar suufi juróom-ñaar mm-hmm. nga ne ko lu tax mu ne li annahu jàlla yutina al muna karaman waaye surabi fiya kulla saati yàlla moom mi nga xam ne moom lay sàkku ngërëmam mm-hmm. waxtu wu nekk mi ngi may sotti ay xéewalam ci jamono bu ne mm-hmm. di suturaal samay ayib gis nga nit yàlla it jamono bu ne dañuy suufeel seen bopp dëgg la dégg nga waaye mm-hmm. suran yu fii ku la sant daal di wax suñu tubaab ne ko nag tey ñëw naa doon sa gan te man gan ca la ko neex ataytuka al yawma dayfan atlubanna rida rabbil baraaya allazi yu'allimul maqaamaati gan laa goo xam ne li may bu sàkku ci nga berndeela mi ko mooy ngërëmal nga xam ne ku am maqaama ku ne moo la ko jox ba nga yëkkati ko isil muridu laa yuridu abada xëyra rida rahmaani xëy xasada mm-hmm. mu ne ko kon ngërëma yàlla ma fi tax a ñëw mm-hmm. waaye du leneen dégg nga kon ataytuka lima dayfin atlubu min rida rabbi barali jami maqamat xiraaya mm-hmm. yaa fiqati ridwanuhu abadan li nga may berndeele gannaaw sa gan laa tey mooy ngërëmal yàlla nga may nga berndeele man gan ci la ko neex wallaahi xilaa yaqi woon abadan waaye ngërëm la nag bi xëyri suuxtin wa taw bi xam ne afar ngërëm loo xam ne bu mu ànd ak sànjab bi sunu borom bu mu ànd ak benn gàkk bu mu ànd benn tilimte wala benn benn benn gàkk-gàkk nga seet wecc nga seet wecc ngërëm lu seet wecc xam ne sànjab sunu borom du ci toppaat allahu akbar dégg nga xiraaye yaa fi xatir waanu abadan bi xëyri suuxtin wa afaati mm-hmm. daan na ko ne jadaaka rabb ko mooy ñaan ka yaa cheikh yi kon def na ko sëriñ wa yaa sanadi yow sama wéeruwaay mhm. xayran aw yiw mhm. malaadi yow mi nga xam ne ci yow ci yow laa aju mhm. xayr malaadi wa izzi kulla awqaat ci waxtu bu nekk waxtu daa na ko jadaaka rabbuka yaa qaadi xawaaija man yaqdu ilayka bi xayrin za shikaayaat yàlla na mi nga xam ne képp ku la xëy si nga faj aajoom ci sëñ Tuuba loo ci sit jadaaka rabbuka maa yuqbiduka al fudala bihi bi jaahi sana yowma al yàlla na la yàlla fay loo xam ne nit ñi nga xam ne suñu borom dañ leen a gënale ëllëg yéemal xiyaam yàlla nañu fay ñoo xam ñoom ñëpp dañ leen ca ñee allahu akbar <laughs> dégg ci sëñ Darou Assane Ndiaye waak rabbu ko xayran haahuna wa gadan an ummatil Mustafa li na xet lay xet yéen sama sab yàlla na yàlla fay tey ëllëg alayhi wa sallam xayra bariyaati mm-hmm. sayidina ahmad al mahmoudi fi abrin sala ala ziatimina sala alayhi salatu la mithila laha fi l ali wa sahbi mahin fi rawonaati foofu la jeexal xasida baat bam daaneel doon ci rawonaat jëfa daaneel xasida nga xam ne xasida gi rek sëñ Daaru Asan nii la jébbalu ci sëñ Tuubaa nga xam ne njébbal gi rek tem la nga xam ne boo boo koy seetlu da ngay gis ne day mel sëñ Tuubaa bu yoroom société sëñ Daaru Asan ñëw bëgg a bokk ci société bi moom daa ñëw ne nii laay bokk ci société bi lii laay am la maanaam société ba ba boo gañee dara hmm. man lii laa ci war a am pourcentage hmm. man nii laa bokkee kon kon jàngat na ba xam ki woote li muy woote lu mu doon. moom dafa ñëw fekk borom yëf yi mu ne ko hmm. actionnaire laa bëgg a. actionnaire kon mi ngi ah. noonu waaye nii laa ci bëgg bëgg a am. sëñ bi nangul ko loolu loolu mooy jëfandikoo xel. dëgg la loolu mooy jëf mm-hmm. alxuraan day wax ne. walaay gi xam yi dafa kon xam yànq loolu bu koy wax. Mm-hmm. borom xel yee tax muy wax dëgg la wallaay. borom xel yi. Mm-hmm. kon la jëbbaloo. takk ndigam na laxasaa yu ne ci daara ji di liggéeyal sëñ Tuubaa. ndeysaan. bi sëñ bi ñëwee euh, Touba. mais mhm. bi mu sëñ ca Touba Touba jëkk ja. Mhm. xam nga booba ñeenti xiblay Touba yi penku ak soowu. Mhm. day jor càmmooñ càmmoñ. fu ci nekk sëñ bi dafaa defoon daara. daara ju ne yenn jëwriñ ak ñaari dong suñ dara suñ ca ñooñu la bokkoon. muy Touba ji jëkk ja. dëgg la. Serigne Omar Diop Mbacke. bokkoon ci magi sëñ bi mm-hmm. te sëñ Tuubaa boole woon ko sëñ Tuubaa sax mu xam ne da leen waxoon ne ne yéen ñaari na ngeen boole seen bopp ndax seen ñaari bunti kër ñoo jàkkaarloo yaakaar naa seen ñaari barab ya sa réew ñoo bokk fi nekkee wallaay mu bokk euh, bi loolu amee sëñ Omar nee na mm-hmm. fii barab yi ne barab yi jëkk ne mais armée jëkk yi ci penku jumaa ji mm-hmm. nga xam ne fi la sëñ Tuubaa sëñ tëdd foofa fa lañ defoon nee toolu dugub bu ñu daan bàyyil sëñ Tuubaa ñoom dong yooyu. Hmm, si dolloo ko armeel yi njëkk yi. mooy armeel yi rek waaw. loolu dugub la mu daan bayal Sëñ Tuubaa. Mhm. booba ko. déedéet boobu doonagul ay la. waaw mhm. boobu sëñ baa ngi dëkk ci mooy fi ñu wax Tuubaa mooy jumaa ji jumaa ji fi mu doon mooy Tuubaa mooy sëñ bi si dëkk. waaw fi tolloo kër sëñ Saaliw. waaw waaw loolu foofu la sëñ bi dëkk. Mhm. ñuy bay ci armeel yooyu muy tollu dugub. dëgg la sëñ Omar nee na bu ñu mosaan xëy ci tool yi ne ci di bay ba jant so. ñu ñëw ci kër gi war a dallu. nee na bu guddee da ngay sëñ Daouda akub jukkeem ak kurusam nee na foofa lay fanaan foofee ñu ko def tey fa lay fanaan di jaamu yàlla di jàng alxuraan di julli ba bët set bu ñu xëyee nee na ñu àndaat ci tool yi te duñ ko mën ci tool yi nee na diir lu nekk Tuubaa nee na loolu la sëñ Omar moo nettali loolu. allahu akbar. kon noonu la doon liggéeyal sëñ Tuubaa ba yàlla dogal. bi sëñ Mouhamadou Lamine Baara Mbacke moom sëriñ bi gën a jamono. radiyallaahu anhu ci lañ yeewi cour bu njëkk ba ar-raayul awwal. dëgg la ci la suñ dellu yeewi ko ci lañ am ngërëm. sëñ Daaru na sëñ Tuubaa yabalaat ko ne ko dellul njaraseer gam nga jamono kër maam mu dellu fa tàmbali moom it di woote li sëñ Tuubaa defoon ci moom mu di ko def ci ñeneen dëgg la te loolu mooy solo si loolu solo si mooy demee faral di wax ne sëñ Tuubaa jamono day mel da doon defar ay nit maanaam jàngal leen am paj ñu doon ay médecins yu yu yu qualifié mhm. mu sax ubbi leen ay hôpital mooy dëkk yi ñu leen doon sancloo boole leen ak mbooloo mooy maladie te ci jamono ci saahir sax noonu lay doxee. ah mu ngi noonu ah la loolu rek la loolu jubluñ ci noonu noonu la doon defaree. mu dellu njara saayir mu sëñ Darou Xasan mhm. ne fa tàmbali di woote. yàlla dimbalee ko sëñ Darou Xasan li maanaam ay bokkam dong ñoo ko topp. loolu tawféex la tawféex la ju rëy. Mhm. woote say bokk wuyul la nangu la tawféex ju rëy la mhm. ñi nga xam ne ay taalibeem lañ. ñoo ñi nga xam ne ñoo ci ñoo ñooy kilifa di sëriñ sa. Mhm. ñoo bokk menn maam buñ dimoo. ñoo bokk menn maam ay bokk lañ. te loolu lu néew la. lu jax ab yónnente sax amu ko. déedéet déedéet waaw yaakaar naa ne taw feex la joo xam ne moom tambar ya daa jooju xam nga li tax mu ah, wàcc. Ah, ah, mu ngi noonu gis nga ca mu wàcc. la mu doon <laughs> ci yónnente waaw la mu doon ci moom. moo tax woote say mbokk wuy si la. lu jafe la lu jafe la. taw feex li la ko suñu borom defee. waaw mhm. bi mu euh, nekkee foofa nag di liggéeyal sëriñ bi. Mhm. ba yàlla dogal suuf sa xat te moom xam nga mag ñi nag yekk fu suuf su yaatu ngir ndax jamono bay moo xew dëgg la bay dunde ak bay jox sëriñ bi mm-hmm. sëñ mu am ndigal ci sëriñ bi mm-hmm. mu ne ko da dem kër sëñ Mor Madieng Fallo sëñ Mor Madieng Fallo euh, mooy maami sëñ Bay Fallo sëñ Bay Fallo doomi sëñ Bay Fallo la soxna soxna Fallo Dieng sëñ Mor moom moo njëkk a yor soxna Aminata Lo mu jur sëñ Mouhamadou Moustapha mm-hmm. ak sëñ Baara waaw sëñ Mor Madieng Fallo mu ne ko ba da ngay dem ba ci këram muy muy dëkk Jafan muy muy ci njàmbur boo demee diggante ak dëkk bi bi sëñ Darou Sane njëkk sañ ci mhm. ab séerante la hmm. ndax sëñ bee ko natt sëñ tuwaa ko natt li ko sëñ natt daf ko wax ne ko mhm. soo demee fa nga tàmbalee fa di tari yaasin wuti wuti gànnaar fu saar wi jeexe mooy barab ba ci Seexul Xadim dara am neenul ne ko danaa la fa fekk mhm. ak lu ma am muy dox ba saar wi jeex mu yem ci kerub daqaar bay ko ba mu wër ko doomi bàyyi ñu àndaloon di ay taalibe ñu daal di bay foofa ñu sippi bagage yi mu daal di aw fasam jàll dëkk bi ñuy wax njekki naan sori wu fa moom itam ci mhm. loolu ci la mhm. fekk jaraaf ja fa nekk mooy doon àtte barab boobu mhm. nee mu laaj ko ne ko dama bëgg ku ma dogal suuf mu ko da ngay dellu toog fa nga wàcc su tëkk sànni naa nga wax ma li nga bëgg ma seet nu ma cay fekk jamono booba jamono yi waxtu nawet daa toll ci di jeex xam nga nawet booba xetar day am xetar xeetal xam naa ñi dëkkee côté bi moom duñ ko xam mooy xaal xaal gi ndaw moom lu mel ni xaal bu ndaw lay doon te neexu la lekk lu mel na tengs rek kon waaw suñu mbokki ndaw ko ndaay moom li ñu xaal <laughs> boobu bokkul ci lañ ko doon rumba xar yi waaw xar yi lañ ko doon rumba <laughs> loolu loolu xeetal ah, ci lañ defee baatoo xet yi mel noonu waaw xeetal lekk waaw ah, dana nekk ci cere waaw ah, des na ci cere mbokki mbusoo be xam nañ ko <laughs> macha allah léegi bi jaraaf ji ñëwee ci takkusaan mhm. ne ko ana loo bëgg nga ne mu ko mhm. man day fu ma toog jaamu yàlla mhm. ak fu ma liggéeyal Sëñ Tuubaa rekk laa bëgg dane ko lii ma bay ci kër Ndaqaar gi mu wër ko sax su ma ci jotee yàlla a tax danaa santaat yàlla alhamdulilah ndeysaan nee na jara jaraaf ji daal boo benn nag ne ko dag wattal ab xeetar mu wattu ko mu ne ko sànne ko ci penk juróom-ñaari yoon xam nga mag mu taxaw sànni xeetar bu caaxaanul dana war a mat téeméeri mètre waaw def ko juróom-ñaari yoon ci penk mm-hmm, mm-hmm. def ko ci sowu def ko ndeyjoor def ko càmmooñ lool la ko dogal muy suufu Daaru Njaay mm-hmm. sëñ Tuubaa jox ko tur mu tudd ko Daaru Salaam Daaru njàmbur gi mu féete ma tax ñu naan Daaru Njaay njàmbur waaye Daaru Salaam mooy tur mu ne foofa nag daal fay def daaray tarbiya ak daaray alxuraan daaray alxuraan jëm fa sëñ Ibra Ngoone Njaay mi nga xam ne mooy doom bi sëñ Njaay Aroon Samb ma ko doon jàngal ci njaraseer moo yoroon daara ja foofa moom jël mu samp ko mu yor daara ji daara alxuraan di jàngale ku noppi ci alxuraan ji dugg ci daara tarbiya yi la sëñ Tuubaa defoon ci moom di ko def ci ñoom ba fii may xeex seexal na ñaar fukki seex ak benn yoo xam ne ku na tofal na leen mbooloo allahu akbar moom sëñ Daaru Asan Njaay ci boppam kon réussir na mission kon réussir na bi mu nekkee Daaru Salaam ab diir ay at yu néew. Mhm. suuf sa xat. Mhm. mu dégg ca ca penk tuuti. Mhm. Eh, dégg nga fu ñu fu ñuy wax biram boodeel. ay taalibe yu mu fa amoon. ñëw fa xibaar ko àll ba na mu yaatoo. mu ñëw fa benn bés. la julli fajar ci Daaru Njaay Njàmbur. daal di war a wax ne sariyaan ila biram boodeel. ba mu demee kër sëñ Modou Ndiaye Samba Law bi fa la wàcc. ab dépp taalibeem. ba mu fay dalee ay ay defa ay fan ñu ànd wër àll ba ñu dogal ko suuf mu sanc foofa tudde ko daarul xadiim daarul xadim la tudd ñu di ko wax daaru biram boodel waaw kay biram boodel wax ñaan daaru biram boodel comme fi daaru salaam ñu mm-hmm. daaru mm-hmm. ñu di ko tudd daaru xadim muy daaru biram boodel mm-hmm. ñaari lëkkam bi mu sanc dëgg la moom ay at yu néew la fa def dégg nga bàyyi fa ab taawam sëriñ Abdou Fatim Baalo ak lenn ci ay taalibe bàyyee ko dëkk fa jàll sanc Tuubaa Njaay ci boori kokki ba tey lépp ci lépp ci lépp ci penku bi rek boo ba tàmbalee dellu noonu ba ba koy mooy mooy mooy euh, dëkkub sëñ Abdou Karim bi mm-hmm. ci Mbacke Bari Mbacke Bari waaw Mbacke Bari ak Touba Ndiaye ñoo bokk benn alt ñoo jàkkaarloo ni mm-hmm. mooy dëkk bi mu mujjee sanc dëkk boobu yoo xam ne bi mu koy sanc sëñ Tuubaa daf ko wax ne ko tudd ko Touba ndax ci la bokk ndax diggante bi bu bépp fekk na sëñ bi dem ci géej gi am booba demagul. maanaam bi bi bi bi muy sanc Daaru Daaru Salaam moom. waaw boobu muy Daaru Njaañjaam boobu sëñ bi demagul ci géej gi. gannaaw bi dem ci géej gi. waaw kay waaw yeneen dëkk yi gannaaw ci nekku sëñ bi ci la. ci nekku ci géej gi la ko sanc ci la ko sanc waaw. Mhm. ndax fu nekk def na fa ab diir. def ab diir waaw. Mhm. léegi macha allah. wax nañ mhm. ne Touba Ndiaye bi mu ko sanc sëñ bi wax ne ko tudde ko Touba ndax ci la bokk moo tax ñu naan ko Touba Ndiaye. Hmm. la muy fa la ab diir boobu nag ci diggante ñetti dëkk yooyu yëpp la mu fa nekkoon mooy di bay sañcoon na sax yeneen daara fu mu ne ay jéekeeg ay jokkalo yu mel noonu waaye ay daara la ñoon waaye dëkk yu mu sañ mbooloo ñoo fa nekk mhm. muy ab dëkk mhm. ñetti dëkk yooyu muy daaru salaam mhm. di daaru njaay njàmbur muy daaru xadim ak tuubaa njaay diir boobu li la mu fa nekkee mooy di liggéeyal sëñ tubaa su nawet jotee ñuy bay lu ca ñore ñu yit ko sëñ tubaa addiyee su noor jotee ñuy liggéeyal luñ ci dajale jiit ko sëñ tubaa Euh, daana ràbbalu ay sendal moom sëñ Daaru Xasan mhm. sendal mhm. yu mag mhm. duy ko ay ganaar ba mu fees dell ñu yan ko ay jëmm ñu di ko yëdd sëñ Tuubaa fu mën a nekk ci biir réew bi euh, sendal mooy lan bëri na fii ñu ko xamul de sendal day xam naa ne xamu noonu ko mën a mis euh, daal daanaka lu mel ne peñe yi jigéen ñi jigéen ñi duggee daal noonu lay mel xam naa waaw ci maanaam ndon bant lay doon. waaw ndon ràbb ko muy luy ci la ci daan roña ngooñ bu njëkk. waaw lu mel ne tey jii boo doon dem Touba. Mm-hmm. boori Pout. Mm-hmm. ak yu ni mel. Euh, di nga gis yu ñu ràbb yoo xam ne am na ñu koy jënd sax di ci def ay yére. waaw xeetu lu mel ne kay yooyu ñu xew xeet boobu la waaw bi bi bu gën a yaatu nag. Mm-hmm. moom lay doon ndax maanaam daanaka du fatt. yooyu yooyu loolu mooy seen dox. dëgg la. ci daan du ay ganaaram fees di ko yan ay nit ñu koy yëtt Sëriñ Touba. daana def itam ndax suñ euh, maanaam defar ay muraake muraaka yoo xam ne ay seel la defar ba mu hmm. baax ñu dëbb ko boole ko muraaka mi di ko yët sëñ Tuubaa di ko pakkat di ko yët sëñ bi macha allah loolu sëñ bi daf ko daan sàkku nga hmm. eh, sëñ Tuubaa bàyyi ko sëñ Daaru Asan hmm. ak sëñ Tuubaa mën a nekk ci biir réew mi bu ñuy dem ñu ngi dajal ñu jógoon ci sëñ Tuubaa yóbbu na aide ba nga xam ne dañuy yàlla rombante ci yoon ñee yóbbu nañ bay wàññi ko ñi ñi ñi ñoom di yóbbu ji mooy waxtu wu ne rek moom ma ngay yóbbu ay ay loolu lépp doon ko defe na ngir la mu waxoon la mu waxoon Sëñ Tuubaa ne ko damaa ñëw doon sagan bëgg ngërëmal yàlla kon werndee la ma ngërëmal yàlla mm-hmm. diir boobu waaye it loolu liggéey zaahir la mm-hmm. waaye liggéey baatin bu ko Sëñ Tuubaa sant mm-hmm. liggéey baatin bi kenn ko xam ne bi sëñ bi wàcc tukki géej gi bi mu dugg xalwatu fii ci Daarul Xudus sëñ Daaru San la njëkk a duggloo xalwa ci bayti Daarul Xudus fi mu toll ba jamono Sëñ Tuubaa ba nëgë ni waa ko sëñ Daaru ñoom lañ koy defar loo bi di démb. falaa jullee timis. man ak sëñ Abdou Samad Sohaybu. Mhm. waaw démb démb. falaa jullee timis néeg boobee ba ko sëñ Darou Sane sëñ Darou Sane mooy mooy ki ko njëkk a takk muy néegub maanaam néegu néegub euh, kii ñax. Mhm. boo xam ne. Mhm. alxo lépp alxuraan lañ ko liggéey. ña doon gori gayet ga. booy gor gayet dana la tari sàngam. ñii sàkket booy sàkket daana tari saar sàngam booy gasum pax saar sàngam booy takk néeg bi ba néeg bi yegg kaamil bi yegg noonu lañ noonu la suñ dañ doon liggéey néeg boobu ci ndigal sëñ Tuubaa loolu liggéey baatin la waaye sëriñ bi itam joxoon ko ndigalal mm-hmm. guddi gu ne mu naafila kaamil alxuraan bi téeméer rakka moom sëñ daaru moom sëñ daaru loolu liggéey baatin la waxoon sëñ Tuubaa ko santoon li mm-hmm. nga xam ne noonu la santoon sëñ daam Abdourahmane Lo muy naafila kaamil ñaar rakka sëñ daaru moom téeméer rakka la ko na naafila ak sëñ Mor Diarra. sëñ Mor Diarra moom it téeméer la ko daan def. sëñ Mor Diarra it wëlleeru sëñ Darou Assane la woon. loolu danañ ci ñëw ci kanam tuuti. dëgg la boo xam ne am na relation bu am solo boo xam ne ni seen diggante ñoom ñaar alaaka bu dëgër la. moom koy fi mu toll nii daanaka danga ngaa toll ci nuyoo te waxtu wi fi mu toll nii mi ngi bëgg a doy waar <laughs> téléphone bi sax laa xamul euh, Mbaye Diouf Mouhamadou Lamine soo nan la ñuy def ak téléphone bi euh, parce que yaa ngi dugg ci ci ci ci tomb yi am solo mm-hmm. muy xalaa xëy. sëñ daaru mag ñi nekkaloon ci sëriñ bi yaa ngi junj léegi Maamoor Jaara borom Saam mhm. eh, yaa ngi wax ab liggéeyam mhm. eh, te yaa ngi doon leeral lu am solo muy bi sëriñ bi dem ci bi bi muy dem ci géej gi maanaam sabab bi mhm. sabab bu baatin bi nga xam ne moo tax sëñ bi dem ci géej gi eh, xalwatu boobu nga xam ne moom la duggoon ci daarul xuddoos Euh, ba yonent bi feeñu ko bala fa xew-xew fa mm-hmm. nga xam sëñ daaru la ko njëkk a dugaloo mm-hmm. loolay doon lu mat xam mm-hmm. loo xam ne xëy na am nañu ko xam am nañu ko xamul xalwatu boobu sëñ daaru doon dugg weeru koor la woon boobu sëñ bi doon def liantikaam nga xam ne saa su waxtu yu jotee sëñ Tuubaa day ñëw tolloog ci moom ci gannaaw liqaam sëñ daaru jiite ko ñu julli wax rek mu delluwaat ba waxtu jotaat mu dellusi diiru xalwa bu xalwa bi ñeent fukki guddi la sëñ daaru seen ko jiite di ko jiite ci biir xalwa bi loolu liggéeyu la santoon na ko it maanaam guddi gu ne mu maanaam mu mu mu ci jamono mu maanaam mu zikkar ayatu kursi yi fanweeri junni yoon guddi gu nekk guddi gu ne sëñ Maamoor mag ñi ànd mag ñi àndaloo sëñ Tuubaa maanaam ñooñu du ñu ay nit maanaam sa jeexal bëccëg bi ci liggéey mm-hmm. tarbiya mm-hmm. defar nit ñi mm-hmm. guddi gi nga jeexal ko ci jàmm yàlla imagineel kaamilu alxuraan nga jullee ko ci guddi. Mhm. ak rakkaaya. Mhm. téeméeri rakka téeméeri rakka. Mhm. ayatul kursi yi nga war koo def fanweeri junni. boo noppee ci guddi ga du yàq dara ca bëccëg ba. la nga war a def. maanaam sëñ loolu leneen la. sëñ sëñ sëñ li naan dafa kawe. loolu leneen la sëñ Darou Assane mosut a gis ganaar. mosut a gis ganaar. waaw ganaar guy dund déedéet. lu waral loolu. mooy fajar lay lay jóge ci bu jóge ci jàkka ja wéy na toole balaa ñibbi si ganaar tëdd na. mag ñi sëñ bi kenn du ñoom. allahu akbar loolu diggante boobu moo tax mu am ngërëm yu baree bari ci. ci sëriñ bi. xam nga maa ngi junj junj léegi sëñ Mamoor Jaara. Mhm. borom saam boo demee ci Minanul Baa Xadim bu sëñ Basiru Mbàkke mu sëñ Tuubaa. Mhm. radiyallaahu anhu mhm. day nettali waxtaan wu wu doxoon diggante ma sëñ Daam Abdourahmaan Lo mu di ko yéem ci ñaar rakkaay yi muy julli kaamil bi te bu bët setee da ko yàqal dara ci njàngale bi mu di ko yéem. sëñ daam xamal ko ne ko moom du ci yëg dara. loolu ndimbala sëñ bi. sëñ Basiir bi ñu nett loolu. Mm. ci la xelam dem na daan ne waxat zakarani hada ma axbarani bihi ibnu Xasan Jaay anna abahu kaana yaqulu lahum ijtahidu fi iqamati alfaraidi wa maqtadatum alayhi min annawafili fa inni mundu taallaqu bi hada cheikh ila yawmina hada ma amrini bi cheyin yajurru ilayhi nafan dunyawiyan innama yamurini bima yanfaani min taati rabbi mm-hmm. dañ ne lii ma sëñ daam Abdourahmane loo wax moo fàttali la ma kenn ci doomi sëñ Daaru Asan yi waxoon ne ma seen bàyyi neewoon na leen na góor góorgóorlu ci farata yàlla yi ak lépp lu ngeen mën ci naafile yi mm-hmm. ndax kat diiru ba ma àndee Sëriñ Tuubaa mii mm-hmm. musuma digal lenn loo xam ne bu ma ko xoolee njariñam la wala lu jëm ci àdduna waaye lu ma lu ma jariñ sama diggal sama borom la may digal allahu akbar sëñ Basiru teg ci waxi boppam ne xult mm-hmm. sëñ def laa ne woon ne maane moom xum ne moo ne duutu fa yoon <laughs> dégg nga sëñ Basiru ne xult wa kaana alxasan Njaay min baqiyati saalihiina sawaaman xawaaman laa yaftur an alquran sëñ Basiir moo seeral la sëñ Daan sëñ Daan ci desiti gaa ñu baax ñi la bokkoon mm-hmm. saalihiin ndeysaan waaraakoon la sa a séexa faala la ko tëggi mm-hmm. ab la kon koor ak farata taxul woon muy wax mm-hmm. sëñ Daaru Asan bés yi araama woor ci at mi képp lu dawul woor nga xam ne liggéey beeg jaamu yàlla gi daf daan ànd ak dëkkee woor dëkkee woor xawaam mooy taxaw guddi wi muy téeméer rakka yooyu sa waaman xawaaman xawaaman ba noppi laa yeftaraan alxuraan musta doggamtaal joxoon waxtu bu ne ma ngay jàng alxuraan te loolu moo koy yóbbee benn bis moom sëñ Daouda Sane mu toog ci genn ker waxtu takkusaan di jàng alxuraan ba yàgg li ñuy wax petax petaxam mareema mhm. ñaari picc mii sab menn mi tontu. sëñ mhm. sëñ Daouda yéemu na cey sama waaja muy sëñ Tuubaa lu mu Mor Assane wax teg naa ci ba neewoon na Mor Assane sëñ Tuubaa Mor Assane la ko def. Mor Assane waaw Mor Assane bala ngaa génn àdduna. Mhm. lu njëriñ wax da ko xam. te loolu bu mu nu jaaxal nañ dal ci alxam wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi suñu borom moo ne lépp a ngi sàbbal suñu ba ci micro bi itam mi ngi sàbbal yàlla yaa ko dégg waaye walakin laa taqoon tasbihu am nañu ko xamul mm-hmm. kon am na exception loolu sax ñu jàng histoire yonent yàlla Suleymaan ma nga noonu daf cay feeñ ma ngi kon ma ko mm-hmm. léegi mu ne petax mii day mm-hmm. nee na morom ji tey fu ñu fanaane nee na morom ji ne ko xanaa garab gee suñ dëru sant di jàng alxuraan bi kaddam daanu lañ naaw fanaan ci garab gi ki roxaloo fa la ko loolu loolu loolu lu kiimaan la sëñ Ndiaye yal yàlla sëñ Basiru teg ca ne mhm. euh, kathira atbaa'il muridina ne sëñ doon ku bari taalibe murid lañ mhm. loolu yaakaar na ko xam Daaru njaay mhm. xam nañ njabaru si loolu ni ñu toll ci yoon mooy ko yaatal yoon wi la yaatal yoon wi la kathira atbaa'il muridina daan na min aqdami man ittaba'a cheikhna ci ñu njëkk a topp sëñ Tuubaa ci la bokk suñu sëriñ bi waa en chemin maa ngi fi albaïn dund naag sëñ Tuubaa lu jege ñeent fukki at daal di nettali diggante bi relation ak sëñ Mor Diarra mi muy wax mm-hmm. léegi. Mm-hmm. sëñ Basiru mm-hmm. Mamar Diarra al kathiru salaati tilaawa an taala ahdi bina fa lima lam fa lima laa tazuurana. wa radda wa qad rasul wa radda rasul wa nazaa wa qad nazaa shaybatan min rasihi yaqulu lahu haada an kulli cheyin kuntu uriduhu min amuri dunia. Euh, mbokk sëñ moor Jaara la woon ci wàllu dogu ci yàlla fas-fas bi ñu amoon nee ñoo moo ñoomee ñoo ko bokk la woon mm-hmm. sëñ Mor Jaara nee na mi nga xam ne gaawaru guddi la woon guddi la daan jóg jëm ci borom daan na wér dem téeméeri rakkaa la woon moom ah, daan dafa am bis mu yónnee ci sëñ Daaru Xasan wala wa mm-hmm. ndaw ne ko sama couleur da yàgg naa yow loo tax nga gëj maa siyaar si ndeysaan dañoo gëj a gisee nee mun rocc bëjjaaw ci karaw gi jox ndaw la ne ko gan gi ba ma ganasee ba léegi tëlatuma leen lu jëm ci mbiru àdduna lu sama borom muy bëjjaaw bëjjaaw waaw dégg nga loolu la sëñ Basiiru nettali ci diggante sëñ Mor Jaara sëñ ak sëñ Daaru allah sëñ Daaru Xasan tudde na sëñ Mor Jaara doom muy sëñ Maam Mor Njaay mi nga xam ne hmm. mooy rakk ci sëñ Mouhamad Njaay sëñ mi mu tudde man dëgg la sëñ Maam Mor Jaara la ko tudde allahu akbar macha noonu la demoon sëñ Mbàkke ndeysaan noonu lañ demee woon macha allah noonu la demee sëñ Omar Diop Mbacke mm-hmm. macha allah noonu la demee sëñ sëñ sëñ Ibra Sarr Ndiaye ma xam ne ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal moom benn mm-hmm. yoo xam ne xëy na mi ngi nay lool waxtu mm, uh, bi a mm-hmm. bi tey war nañoo wax sax ci programme mu màggal gi maanaam lii dafay wane ni ñoom ay mag lañ yoo xam ne tey bu ñu leen di waxtaanee dañuy cof maanaam dañuy cof loo xam ne ñun dañuy ëpp ñun mhm. waaye dañuy cof tuuti ci seen dund seen dund moom xajul ci mhm. waxtaan waaw bu ñu toogoon fii wax ba jant bi fenk ñu jóg mhm. ñeneen mën nañoo ñëw toog ñoom itam wax ba jant bi so ñu jóg da du tax mu jeex waaye dañuy cof rek loo xam ne danañ ci danañ ci mën a jariñu euh, xëy na Mouhamadou Lamine Sow ci kanam tuuti ñu mën a yaatal jataay bi euh, bëgg naa kon nga tëj foofu rek ñu ñu ñëw ci bis bi euh, parce que daa ñu ko yaatal ci yeneen jataay incha allah ok jërëjëf suñu maamar kanaa waxtu yi xëy day xaw a xat Euh, bisub màggalu sëñ Darou Xasan. Mhm. sëñ Darou Xasan moom gàmm la ko la la daan def ci jamonoom bi muy dund. gàmm la daan def muy guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Euh, ku Buuna mooy naar boobu daan jàngal sëñ Tuubaa. Ibra Fall Buuna mu Ahmadou Fall Buuna. Ahmadou Fall Buuna naar boobu daan jàngal sëñ Tuubaa. Mhm. taalib sëñ Darou Xasan la woon. Mhm. sëñ Masamba Mbàkke moo ñëw gane si sëñ Darou Xasan. sëñ daaru jox ndigal sëñ Mouhamed Fall muy muy yëkkati xasida mhm. baat bu neex baat dégg gi arab mhm. mu yéem sëñ Masamba ba ne kii moom sëñ Tuubaa rek la ko yéene ndeysaan nekk ne ne sëñ daaru kii dama bëgg nga jox ma ko mu yët ko sëñ bi jox ko ko ko sëñ Tuubaa muy jàng mooy naar boobu nga xam ne moom la ñuy nettali ne keroog bi mu bi mu faatoo. Mhm. yonent moo jox càngaay li sëñ Tuubaa ngir ñu. sànq ñu sàngee ko ko. wallaahi dëgg la. waaw taalibu sëñ Daaru Xasan. dëgg la wallaahi. ki sëñ Tuubaa. Euh, màggalu sëñ Darou Xasan. Mhm. sëñ Darou Xasan bi mu fi jógee ci mille neuf cent vingt quatre. vingt quatre moo jiitu sëñ bi ñetti at. Mhm. ci euh, Touba Ndiaye googu mu wàccee. Mhm. keroog ba mu wàccee. ñu yebal sëñ Ndiaye Estugalaay mu jóge Touba njaay jëm si njaaram di ko wax sëñ Touba. laata muy agsi wax na ne sëñ bi yónnee na ay yoon ci penc mi di wax naan ndaw li jóge ci Mor Assane ndax ak seegul. c' est tout tout tout tout. ne ko yow de sëñ bi yaa ngi lay jàmbat àggal. ñoo gën a ko jàpp loxo mi ne nag sa juróomi baaraam yi moor la may tàgge waaye ndawi saa borom yi la fi jiitu jàmb borom mu gërëm daal di woo woo sëñ Omar Diop Mbàkke ne ko ñëwal gungeel ma sa sa mbokk sa xarit ba mhm. sëñ Daaru Xasan nañ ko def guy tax ca guy taxe mhm. daan na ko bu ngeen doxee juróom-ñaari jéego ca penku keroog penku ga defoon na fa mbaaram ger doon fa liggéey lu jëm ca barab ba mooy loolu sëñ Omar doon nettali ci gannaaw li ma doon wax ci gannaaw hmm. nañ ko def foofa daana na ko sëñ Mbàkke Buso taxaw dëgg la ne ko yow sëñ Omar itam boo boo noppee bu ñu noppee ci loolu nag jàll njàmbur jaalal ma ko bokk ya waaye lu yàgg-yàgg néeg boo xam ba mu doon jaamu yàlla bu ca tàbbi soo ca tàbbi da nga ko fekk ndax yéen a bokk mbir wax na ne keroog sëñ Mbàkke Buso bi ñëwee ba tiim ko dafa ne jëmm ngi ni joo xam ne day melokaan ni mu mel ca yóbbaale njabootam gépp daal di kabar allahu akbar suñ Omar yi ba mu demee Mbàkke la mu nettali ci moom dafa wax ne ba mu yendoo ba ngoon jot dafa wax ne jëmm ngi joo xam ne day du du tudd nit fu mu nekkul mm-hmm. du delloo ab laaj du boobu diine du boobu alal loo ko laaj ci mu tontu la loo ko laaj ci jox la ko te du tudd nit loolu doy doon baax waaw loolu suñu Omar seede keroog dëgg la dëgg la yàlla dogal mu jóge fi 1964 sëñ euh, mm-hmm. sëñ Fallou Ndiaye mm-hmm. mooy xalifaam bi ko njëkk a wóotu bi mu fi jógee sëñ Bay Fallou bi mu fi jógee sëñ Ousmane Ndiaye mm-hmm. sëñ Ousmane kër sëñ Tuubaa la yoroo mm-hmm. moo jarbaatu Cheikh Ibra la soxna Astou Diop mii jigéenu Cheikh Ibra moo ko moo yow juróom mm-hmm. te dafa mel ne 66 ans la dund 66 ans la dund muy Allah te jeex tàkk ci la dund léegi la ci sama xel dem mi ngi noonu loolu mooy jeex gi tàkk ci yàlla rek lépp suñu borom la lépp yàlla la gannaaw sëñ Ousmane Euh, sëriñ Mouhamadou Ndiaye Hassan. li mu tuddee man. moo moo mooy ñeenteelu xalifaam. gannaaw moom sëñ Abdourahman. gannaaw sëñ Abdourahman sëñ Abdourazaq Ndiaye. mel na mi nga xam ne mooy wujju sëñ Cheikh sëñ Cheikh Ndiaye Abdourazaq ndeysaan. yéen a moo sëñ Ndiaye jigéen. moom mu mujj xalifa yi ci doom yi. bi mu fi jógee nag sëñ Mbacke Awa mooy sët bi ko njëkk a wóotu. ndeysaan ci 1997. Mhm. ci jamono sëñ Mbacke Awa bi nga xam mooy xalifa sëñ Daaru Salaam ci lañ sos daayira ci la sosoo. 1997. Hmm. ci lañ ko sos le 17 mai 1997. Hmm. ci lañ tàmbali ca di su déwén si lañ tàmbali nag muy def màggalu sëñ Dawla Sane gii. waaw ah, kon officiellement. 1998 lañ ko lañ mooy première ñu njëkk a def màggalu ko def muy hmm. màggalu bëccëg yi itam. ba.

le 17 bii pa le 17 itam incha allahu taala mhm. dana am mbale mu ñuy def ci mbalam di wër Daaru Njaay mhm. waaye itam euh, ab don maanaam don restant boo xam ne dañ koy def ngir jàppale ko hôpital yi ci wàllu maanaam deret mhm. loolu sëñ bi joxe na ci ndigal ci jabat gépp bu boobu ku mën a maye na nga ñëw ñu ñu ñu consulter la seet sa deret bu baaxee ñu jël ko macha allah ngir dimbale ko hôpital yi loolu am na solo dañ koy def suñ demee ba itam muy bisub bi nga xam ne ci la sëtaat yi taxawal. Mm-hmm. ma conférence bu fay am. Mm-hmm. en même temps ci suba gi danañ def maanaam consultation gratuite ci wàllu jabet. macha allah bu ñëw ko ñu ñu consulter la incha allah taala. ndeysaan lu mu laaj it ci wàllu garab lu fa jàppandi dañ la ko dimbalee. Mm-hmm. léegi bu ngoonee. conférence bi sët yi taxawee. incha allah taala muy euh, sëñ Fallou Boussa Hassan. sëñ bu sa Hassan moo koy taxawee. macha allah yàlla modérateur bi sëñ Bakelo Mouhamed. ndeysaan moo koy modéré. thème bi mi ngi jëm ci. ahamiyatu tarbiya wa taalim fi mm-hmm. muwaajahatil mustajadaat mm-hmm. maanaam solo yar ak jàngale mm-hmm. ci maanaam ni amee solo ci jàmmaarloog yi xew ci yu bees yi ci jamono ji fi jamono toll fi jamono toll loolu mooy tem ba insha allah wa taala macha allah suñ ci jógee nag buñ xëyee di lavin bi muy alxames xëyee njàngam alxuraan alxasida ci mboolem bunti kër yi sëñ Darou Sani ak ci biir penc mu mag ñi fa la ñuy jàng alxuraan bu bëccëg mm-hmm. ñu ak xasiida ak mm-hmm. azkar yi mm-hmm. ñuy ñu bu bëccëgee ñu bi ñu berndee ba noppi nag ñi deuxième bi ñëw suñu xaadim si la docteur moo koy taxawee macha moom it tam ba mi ngi jëm ci euh, cheikhu ahmadul xadim wa manhajuhu fi fi fi islaax wa tajdid maanaam ngirum sëñ Tuubaa mi mu jaar ngir yeesal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam rek bu ñu ko tënk ci lañ naan la ñu xamee li bokk ci yoon wi li ci bokkul ndax mat naa xamee fi mu toll nii. jataay yooyu de mën naa yaatal bu baax moom. loolu mooy mooy thème yi nga xam ne incha allahu mhm. Mhm. taxawal. la ca dolli kii am na benn journal boo xam ne at mu njëkk naka bi ñu tuddee alxasan. Mhm. dina ko génnee te daayira bi di ko taxawu. jabar Alxasan Alxasan. ren ji ñu ngi jël kenn ci njabar suñu doon gi. muy ab sëtam. Eh, di sëñ Cheikh Maram. sëñ Cheikh Maram génne journal boobu a ko xam mooy mu doon kooku yéeme ku doy waar moom waaye am na exposé bu ñuy def itam. boo xam ne muy Serigne Touba ak alxuraan. Serigne Touba ni mu doon di alxuraan ak lam ci liggéey yëpp. loolu incha allah taala la ci jàpp ne dina ko exposé bi. macha allah loolu daal mooy mooy jëmmi bis bi. nee ba ngoon na ba ba tamit nag. sëñ bi ñëw yeewee. incha allah taala loolu na kon ñoo ngi ci woo bokk yëpp sëñ Maam Mor. Mm-hmm. muy mbooleem. Mm-hmm. këri sëñ Touba yi. Mm-hmm. nga. ak. Mhm. ñi nga xam ne wëlëlee sëñ Dóor wax nañu woon. Mhm. muy mag ñi. Mhm. bu ñu tuddee Cheikh Ibrahima Fall. mu doy ndax Cheikh Ibrahima moom. mooy sëñ Dóor wax dëgg la. ndax sëñ Mouhamad sëñ sëñ sëñ soxna Roqee Njaay mu jur sëñ Mouhamadou Roqee mhm. njare la bokk mhm. soxna sëñ Nabi Njaay njare la bokk mhm. kon sëñ da Seex Ibrahima daa bokk ci njare ay yoon dëgg la kon bis bisam la ñu ngi ciy wàññi ndeysaan waa ko sëñ Omar Diop mi nga xam ne wala sëñ Dóor ñoo ngi lañ ciy woo waa ko sëñ Mamor Jaara di wëlëram ñoo ngi ciy woo waa ko sëñ Mbàkke Buso ak mboolem rek yoon wi ñëpp ak jullit ñëpp itam ba ci suñu bokki wàq yi nga xam ne ñoom itam dañoo féete ci waa suñu waa maa ngi maa ngi maa ngi njare di suñu bokki ti yàlla ñoom itam nga xam ne ñoom it bis seen bis la ñoom ñu ngi lañ ciy woo bu baax a baax bis koor noonu rek la ñu xam ne bokk yi ne bëccëg la itam bëccëg mhm. bëccëg la ci la yem waaye ñoo ngi sàkku sëñ bi ñu ngi sàkku képp koo xam ne itam mën nga jàng alxuraan mhm. wala xasida wala asgar salatu ala mhm. lépp loo ca man rek nga def ko te yéen a yollu suñu defoon te lim ba 286 30 07. incha allah taala da nga lim boo am ci alxuraan wala xasida wala rek. même yi nga fi wax ni it ku ci bëgg ay leeral. mën na woote ci numéro bi incha allah lu jëm ci bis bi. incha allah loolu am na solo. daal mooy taxawaay jëmmi bis bi. Mhm. di ci woo ñëpp itam. Mhm. di ñaan suñu borom sànq yóbbu ñu jàmm. Mhm. te def jàmm ci réew mi. macha allah incha allah mooy mooy bis bi. jërëjëf. Eh, jërëjëf eh, suñu mbokk mu tedd mi sëriñ Mouhamadou Ndiaye Hassan ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant eh, Mouhamadou Lamine saw yow itam ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant daanaka sax dafa tombeek fi nga xam ne rek fi la waxtu wi di bëgg a mate ñu war a tënkaat xibaar yi ci kàllaamay farañse léegi jombul bu yembee rek ñu daal di dellu si tàggatoo ñëw ci minute yu mujj yi. Euh, xam naa tey nag euh, dañuy daal di jéggalu yóbbalu bis bi euh, ndax ci lañ daan ànd ak yéen ba 3 heures du matin waaye tey xam naa dañ ciy daal di jéggalu bu ko defee rek bu Mamadou Omar ba tënkee xibaar yi ci tubaab ba noppi rek ñu daal di yëkkati jataay bi bu àjjuma dellusee ak jàmm nag ñu dikkaat ak yéen. Euh, ci programme bi nga xam ne moom la émission yóbbalu jullit di doxee euh, mu di rajo service bi euh, pàcc bi ñu jagleel wàllu diine pàcc bi ñu jagleel yóbbalu bis bi nga xam ne mooy dem ba trois heures du matin ay ca kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ndokkeel Mamadou Amor Ba mi ngi teew ci jataay bi fas yéene leen a tënkal xibaar ci kàllaamay français bu noppee nag ñu daal di ñëw ci suñu kàddu yu mujj ci émission bi Mamadou Lamine Sow ñu dem ذاكي وليدا ختم دار دعا إلى متي سبيه محمدا أماني ومن لم يهوني فهو يطرد RFM, Radio Futur Média, 94 FM, Dakar. Merci de votre fidélité. Il est 2 heures, un bref survol de l'actualité. Mamadou Oumar Un incendie s'est déclaré vers 15 heures au quartier Escale de Diourbel. Le feu est parti d'une imprimerie et a affecté la maison voisine. Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels estimés à des millions de francs CFA. Faible taux de retrait des cartes électeurs à Sédiou sur plus de 1200 cartes reçues. Seules 671 ont été retirées à la date du jeudi 13 janvier, soit un taux de plus de 52%. Une situation préoccupante pour l'autorité préfectorale qui demande aux population de venir retirer leurs cartes. Zone des Niailles, les agriculteurs dénoncent la chèreté de l'engrais. Le sac qui coûtait 15 000 francs CFA est aujourd'hui vendu à 34 000 ce qui a durement affecté la production. Beaucoup de produits horticoles pourrissent s'indignent les maraîchers. Ils ont d'ailleurs tenu un sitting pour adresser un message aux autorités Cheikh Les Niayes polarise la zone de Bayakh, Kayar, Diender, Notougou, Diama, Darou Khoudoss. Ces producteurs maraîchers sont très mécontents. Sous la contrainte de la cherté de l'engrais et des intrants, ils traversent des moments difficiles. Les prix ont doublé. Bati Diop, le secrétaire général de l'association des, des maraîchers du GIE Takoligay.

disons que nous n'avons pas de ministre de l'Agriculture parce que Dr Moussa Baldé ne s'occupe pas de la zone des Niayes. Aussi, le directeur de l'horticulture, Dr Makoumba Diouf, ne savent pas que, que nous produisons toute l'année, 12 sur nous sommes le grenier agricole du Sénégal. Et ceci n'est pas tenu en compte. Ces maraîchers estiment que la campagne de cette année est plombée par le manque d'eau et les prix élevés. de l'engrais. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Khalid Darussalam, deux quartiers situés dans la commune de Tivaouane, les habitants étaient en sitting ce pour interpeller les autorités locales. Ils veulent des lampadaires pour mettre fin aux agressions et vols dont ils se disent victimes. ils ont même saisi La justice pour dénoncer l'indifférence de leur maire malgré leurs multiples interpellations. Pate Tiangay à Kafrine, c'est dans le centre-ouest du pays. Les populations de 18 villages réclament l'érection d'une commune à part entière. Elles demandent également le bitumage de l'axe Pate Tiangay-Gambi, très fréquenté dans un état chaotique exposant les usagers à un danger permanent.

ما ليس يحمد رسول كريم بشرا يقيني إلى الجنات ما ليس يخمد رسول jërëjëf euh, Mouhamadou Lamine Sow jërëjëf it euh, Mamadou Omar Ba Mbaye Diouf maa ngi lay gërëm bu baax di la sant di la ndokkeel euh, moom wax dëgg yàlla mi ngi may seedeel léegi di wax ni waxtaan buñ mas a def bu tay bi moo ko ci dàqal ndax sëriñ Daaru Assane Ndiaye rek la bëgg moom mooy safoor bu bu RFM moom nee na sëñ Daaru Assane Ndiaye rek lay noyee nii la ma ko waxee ñu ngi koy eh, gërëm bu baax di ko sant koo gis waxtaan wi ni mu dem ni mu demee itam mm-hmm. eh, Lamine Sow wax dëgg yàlla moom it def na ci ittee eh, liggéey bi rafet na mm-hmm. sell na tayit yaakaar naa ni mbokk yi taataan nañ ko ak jàmm mm-hmm. dañuy tëj rek ci kàddu yi ngërëm ak cant yoo xam ne du mën a ñàkk Euh, ñu bàyyi la euh, ñàkkul kilifa yoo xam ni da nga leen gërëm euh, sant leen ndax jataay bi ñi bëggoon a dugg bëri na mm. message yi bëri na mm. am na yoo jot am na yu ma jot mm. bataaxel yi bëri na ñi nga xam dañoo bëggoon a woote téléphone bëri na ba sax ma nga doon sone ca ginnaaw mais xam ngeen ne rajo temps la waxtu la teyit waxtu bu xasee mat rek daanaka foofu lay daal di yem mhm. mais xam naa ne li wolof naan lu jiw wa jeexul jógu fa ëllëg ak jàmm incha allah dana gën a yaatu mhm. ndax fi ñu yem bu ëllëgee buñ koy waxtaanee fa la ñuy tàmbalee waaw kay macha allah kon euh, sëñ la ok jërëjëf xam naa day sëñ Mamor mhm. ñoo ngi lay sant bu baax la gërëm ci taxawaay bi ak pastif beeg yéene ju am solo ji alhamdulilah bu baax it ak euh, euh, yéene ji nga ci am ba émission bi am alhamdulilah ñu ko waxee ci tàmbali bi itam day mel ne xëy nun nooy ñaareelu koy invité ci bi bii. wallaay wallaay loolu lu am solo loolu. ci diirum juróom-ñetti at juróom-ñetti at loolu lu rëy la ci ñun. <laughs> ndeysaan noo ngi lay gërëm ci turu sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Darou Xasan. alhamdulilah di la ñaanal itam. amiin eh, sunu borom defal la sa bëgg. amiin ñu bokk amiin yaa rabbal alamin di ñaanit liggéey bii. Mm-hmm. yàlla na dugg ci liggéey ba sëñ Tuubaa seede woon ci sëñ Darou Assane ci ne ko. Mhm. ku la liggéey lu toll nii lay dee ci yaram raam sa war. alhamdulilah di la yóbbante nuyoo sëñ maam daam. sëñ maam daam Ndiaye mi ngi may woo léegi. macha allah di rafetlu mi ngi koy topp. ndeysaan eh, parce que di gërëm baax di ñaanal moom itam. bokk mhm. ci ñi doon taxawu ba émission bi am. ndeysaan waaye noonu nga ko waxee itam. Mhm. di gërëm sëñ Lamine Sow mi nga xam ne moo ne nekkoon ci euh, technique bi. macha allah ak euh, mbokk bi safur bi. ak euh, Mbaye Diouf sëñ Mbaye Diouf. Mhm. noonu mu wax wax dëgg yàlla. macha allah am na solo la ñu ngi jaajëfal ko ñaan suma ko tamit. amiin yaa rabbi waaye itam di fàttaliwaat rek ne. Mhm. don le sang bi mu doon wax le 19 bi. ci la ci lay am ak consultation bi. Mm-hmm. mooy bisu bisu di taxawal. Mm-hmm. social di taxawal. incha allah doon sang bi ak consultation bi ci lay am le 19. incha allah ci le 19 bi lay am. ci lay am ak conférence suñu fàll bu su asan bi. Mm-hmm. le euh, bi nag mooy bis bi di conférence bi mu gannaaw itam ñu am conférence boo xam ne suñu xaadim si la docteur. moo koy taxaw incha allah ci yooyu ñu waxoon. loolu la ñu ngi woo ñëpp daal di gërëm ñëpp. di fàttaliwaat bu baax itam. ndigal suñu joxe woon rek jamono bi ci gannaaw waxoon ne daa bëgg maanaam mbooloo mi bàyyi xel bu baax a baax itam. mandarga mm-hmm. euh, kër sëñ Darou Xasan. Mm-hmm. muy document bi nga xam ne. Mm-hmm. jamaat ahibaa Cheikh Xasan tànn nañ ko ci ndigal sëñ bi. muy document bu bële bi. ren ñu dolli ci ak kol gu weex. ñu bàyyi ko xel mbooloo mi. bu ñëw it na nga na nga indi lu mel noonu. loolu koo xam ne da ngaa bokk ci kër sëñ Darou Xasan waaw. waaye ak itam liñ xam mii ne Darou Ndiaye dëgg-dëgg muy muy der gi itam der moom lañ lañu mii ne waa Darou loolu lañ ko bàyyi xel bu baax sëñ daa koy soññee waaye di soññee baax itam ci wàllu jaayante yi Euh, jaayante yi nga xam ne sëñ bi at mu jëkk naka jëkk gannaaw bu daayira bi stoppee ay sas itam ba ñëpp bàyyi ko ba noppi mm-hmm. yoonu murid yàgg naa am jaayante dëgg la sëñ bi wax nañ ñu bàyyi xel jaayante yi lépp lu waay man ci xeetu jaay moo xam da ngay dogg ndab ci sa kër moo xam da ngay tàngal ko moo xam looy def mm-hmm. lu mën a doon rek jog ko commission sociale bi insha allahu taala mm-hmm. euh, ci teg ko ci seeni loxo daa ñu xam nañ nañ koy def di sant baax la sëriñ Moustapha gi mi nga xam ne moom itam mooy ci wàllu communication bi. Hmm. ñu bokk ci ñi ko jiite. Hmm. di fàttali ne maanaam euh, comme euh, ni ñu ko waxee di hmm. euh, exposé bi nga xam ne. commission culture bi. Mhm. ci njiital sëñ Adama Ndiaye ak sëñ maam euh, sëñ mhm. ñoo koy taxawee. Mhm. mu jëm ci sëñ alxuraan ñu bàyyi ko xel bu baax. macha allah loolu bind yi am solo itam. loolu daal xam naa ñoo ngi gërëm ñëpp di sant di sant sëñ Mamour euh, Mbacke. moom sëñ euh, Mbusoobe Mbacke. di sunu xarit di sunu wëlal. macha allah ko siyaar moom itam sunu wëlal lool moom itam. macha allah te safoo lool sëñ Dero San itam. ndeysaan di siyaar mboolem juróom-ñaari njëriñ rek. boo ko tuddee na lay sax muy juróom-ñaari njëriñ. ndeysaan ñëpp ñi ngi ñu bàyyi xel yaakaar naa rajo bi yaatu na fa ñu ko bàyyi xel wallaay ndeysaan waxtu yaatu na xëy na euh, téléphone yi jamono bi léegi mi ngi mi ngi yëngu moom kay booba léegi mi ngi yëngu waaye xëy na waxtu tuuti xat waaye ñu ngi siyaar ñëpp di gërëm ñëpp wallaay ndeysaan di ñaan lépp lu ci jub rek mm-hmm. yàlla ñu ko bokk jëriñoo wallaay ndeysaan dëgg nag ñu xam nañ jaam su xew si doon wax la lépp rafet na jégalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf euh, sëriñ Mouhamadou Hassan Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant di rafetlu bu baax it eh, jataay bu am solo bi ak eh, ni nga ko tëggee ak leeral yu am solo yi nga xam ne indi nga ko ci eh, sëriñ Darou Assane njaay di kàngam gu mag googu nga xam ne bokkoon ci kàngami ko tedd ki di Cheikhul Khadim di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu fayal ñu ko doole fee yàggal ab xalifaam mu di sëriñ Abdou Khadir di ñaan suñu borom mu doole ko fee yàggal te doole ko wéral njabootam nga jiitu itam suñu borom beral leen ca barsàqu Muhammadiya ca ak ajjanay firdawsi ca wetu Serigne Touba ak Serigne Darou Assane Ndiaye yal nañ ko yàlla fayal eh, di gërëm bu baax it eh, mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp ñu ngi doon bàyyi xel jataay bi eh, di gërëm bu baax sama sëriñu bopp di sama kilifa gi nga xam ne biig man ak moom ñu ngi toog di waxtaan ba jul liggéey ba noppi ca jàkk jële ca daarul xuddoos mu di sëriñ Abdou Samad mbakki moom sëriñ bu di ñaan suñu borom mu defal ko tawféex defal ko gudd fan defal ko wér defal ko yokk wax dëgg yàlla moom ko am taxawaay la ci yoon wi ko am taxawaay la ci doomu aadama yëpp di gërëm bu baaxee suñu kilifa ak bopp euh, mu di Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ Abdou Khadir mi nga xam ne su ñu ite iteem la euh, waxtu nekk saa su nekk itam euh, ginnaaw teef gi suñu wayjur la suñu sëriñ la waaye mu ngay itewoo suñu ite la ñu soxla subaa ngoon guddeeg bëccëg Euh, mu cay mu cay mu cay dox di ca wax moom euh, moom Cheikh Mamadou Bachir moom sëñ Abdou Khadir mu yore kàddu yoon wi di ñaan suñu borom mu defal ko gudd fan defal ko wér euh, di nuyu bu baax it sama bàyyi bopp di sama xarit muy Serigne Cheikh Abdou Mbacké moom Baye Cheikh Khady di ñaan suñu borom mu defal ko gudd fan ak wér sama xarit la sama baay la sama soppe la doon itam ko am njariñ ci ñun waxtu wu nekk saa su nekk itam mi ngi ñuy taxaw ci saahir ak ci baatin Serigne Cheikhouna Mbacké moom sëñ Abdou Lahat moom itam di kenn ci ñun ak sama xaritu bopp Euh, sama baay sëriñ Ahmadou Rafahi euh, moom Cheikh Mamadou faadil euh, sëriñ jiili Mbacke moom sëriñ Abdou Lahad démb rek ñu ngi jox jokkoo ak sama xarit sëriñ aboo moom Cheikh Mamadou faadil di nuyu bu baax it suñu bàjjenu bopp di suñu lépp muy soxna Bali Montaxa moom Cheikh Mamadou Muntaxa soxna Bali moom euh, Serigne Sohaybu moom Xaadim Rasoul ak sama bàjjenu bopp soxna maam Aram Mbacke moom Serigne Modou Fati Xari file ci Sacré-Cœur 3 moom itam doon koo xam ne euh, njariñam ak loxoom tey jii rek la mujj ci ñun ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di sant itam koo xam ne wax dëgg yàlla moom fu mu toll dafay sax ci di ñu defal ay teranga mu di soxna Mominatu Kebe soxna Mominatu Kebe euh, moom Alaaji Njuga Kebe soxna Mominatu Kebe moom Serigne Salihu soxna Mominatu Kebe moom Serigne Abdoulaye Tage moom Serigne Salihu Mbacke Mbacke wax dëgg yàlla euh, yónnee nañu addiyee joo xam ne euh, daanaka yaatu na lool kon soxna moom yi jërëjëf te sax bëggul sax ku koy wax moom da koy def rek te yàlla tax du ci bëgg a feeñ euh, soxna moom yi netu kebe yàlla ko suñu borom defal ko gudd fan defal ko wér sëriñ Abdoulaye Tagge moom léppam sëriñ Saalihu la jërëjëf kebe soxna wuli kebe itam moom Cheikh Mamadou Bachir moom sëriñ Abdou soxna wuli moom soxna wàllum sëriñ Saalihu wax dëgg yàlla moom itam Euh, waxtu wu nekk saa su nekk euh, Lamine dafay yónnee ay teraanga ci ñun te démb ci mujj ma di ko sant bu baax di ko gërëm ci teraanga ji nga xam ne démb rek euh, yónnee na loo xam ne <laughs> <laughs> Lamine Lamine Lamine ca gannaaw ma nga yëngu waaye yónnee la loo xam ne xam naa ne bu ma leen ci séddee yéen euh, yaakaar naa poos dana diis euh, soxna Wuli Kebe wax dëgg yàlla moom itam euh, taxawaay bu rafet bu am solo bi nga xam ne moom la am ci kër Cheikh Mamadou Bassir moom sëñ Abdou Khadir mënu koo ñàkk am ndax taxawaay boobu moom la woy jërëm bu tedd wa amoon moom soxna Waalo Mbacke moom sëriñ Saarifu Mbacke soxna Wuli Kebe jërëjëf yal na yàlla sàmm. yal na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla kattanal yal na la yàlla dimbale ci saaxir ak ci baatin eh, ci barkeb Serigne Touba Khadim Rasoul maa ngi jot ni message su monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye eh, maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant maa ngi jot message am nii muy wax ne mi ngi déglu émission bi moom itam suñu fidèle auditeur la moom dafay participer sax ci biir émission bi eh, monsieur le ministre Serigne Mbacké Ndiaye bàyyi Coro Mbar Ndiaye yal na sëy bi barkeel macha allah jërëjëf di gërëm bu baax soxna Wuli Kebe daal yow daal jërëjëf kon euh, mention spéciale addiye ji euh, xéewal yi yegg si na soxna Wuli yegg si na euh, soxna waalo yooyu itam jërëjëf di nuyu bu baax it soxna Basakan moom soxna tuutim sëriñ Modou Moustapha moom ba may defal teraanga booba xamaguma sax yoonu ndakaaru booba ña nga ca RFM Mbàkke waxtu wu nekk saa su nekk mu daan lamb poosam yaakaar naa maa ngi yor xeetu parfum yu yu yu seer yoo xam ne Eh, ci màggal Touba gi jàll eh, la ñu ko jox boole kook addee joo xam ne kenn xamul nu mu toll di wax ne fii ñu toog ñoom lañ fi toogal kon soxna Basakan moom soxna tuutim sëriñ Modou safaa doomam soxna bu so eh, sama jarbaat boobu di sama lakkal maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant sëriñ Mbacke Ndiaye jërëjëf oustaz Abdou Karim Ba moom itam suñu bàyyi bopp borom firi gént borom le verté des Corans ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant di beral cant ak ngërëm nag Touba commercial waa kër Serigne Saliou Mbacke Guèye et mu di Serigne Jéeri waa daan Guèye moom itam maa ngi koy gërëm bu baax di ko sant ca Ouest Foire moom moom ko am taxawaay la ci ñun taxawaay bu espécial la am ci ñun suñu itte iteem la suba ngoon ba bëccëg itam mu ngi sonn ci ñun te Serigne Saliou Mbacke rek a ko ñor léppam Serigne Saliou la way jërëm wa tedd wa Serigne Moustapha Guèye ku xamoon Serigne Saliou xam nga ko mu amoon taxawaay bu am solo ci kër Serigne Sadikoo Mbacke euh, moom Serigne Jëri daan Guèye wax dëgg yàlla moom itam taxawaay boobu fettali feddali na ko euh, ci wetu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Sadikoo di xalifaam yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér euh, di gërëm bu baax it mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi doon déglu ak fuñ man di nekk yaakaar naa ne jot naa sax ay message yoo xam ne ay mbokk yoo xam ne bég ci jataay bi la ba yónnee ñu ay hadiya ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant ndeysaan jërëjëf mbokk mi euh, moom sëriñ Ilimane Njing sëriñ Ilimane Njing nee na moom bu ñuy déglu xolam day sedd ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant la woon ca digital ba kenn xamul nu mu toll lañ fa jot ci commentaire bëri na waaye lu jiw wa joxal jógu fa ëllëg ak jàmm incha allah daañu ko fa yéene yaatal euh, ci euh, yeneen jataay fii la ci seen rajo Futur Media. ci kon mbokk yi mu doonoon seen émission yóbbalu jullit sëriñ Mamor Mbacke kenn sëriñ Tuubaa ci woon micro bi Mouhamadou Lamine Sow ci woon xarale gi feggoog Mbaye Diouf ca dem dikk ba. ñu bàyyi leen ak euh, Mamadou Omar Ba mu continuer ak yéen RFM Nuit li des ci guddi gi euh, file ak 5 di du matin waa RFM weekend danañ fi ñëw ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp may gërëm it El Hadj Mamadou Ndoye Bane maa ngi jot sànq message am moom maa nga ca campagne ba euh, ñu koy ñaanal rek ñu koy ñaanal <laughs> Lamine ngeen baal ma waaye yàlla na ko suñu borom jotale ci la muy sàkk bu gënee ci moom yàlla na ci jot. te mu ànd ak ndox mu sedd guyu euh, muy pir googu nga xam ne moom la suñu xarit baan di sàkku euh, di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp euh, di bal xaq ñëpp di bal xaq ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu fanaan ak jàmm jërë ngeen jëf ci déglu bi يَعْدُهُ